sadid lisaani nawwir janaani safi amaani wasit baraayi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jullit yi rawatina mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñoo ci internet yi nga xam ne nekk ci biir réew mi rawatina yi nekk Touba ak ya nekk ci yeneen i gox ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balu àq di leen ko baal di jiital ci sunu am nuyoo ak sunu ziar saaxibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te doole ak wërëm noonu lañuy nuyoo kër yi diine yëpp tàmbalee ko ca kër Cheikh Sidi Asi Malik jaar ci kër Cheikh Ibrahim Cheikhul Islam jaar ci mbooleem buntu kër yi diine yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo tënku ci tarixatu suufi bokk yi ñoo ngi am mbégte ñëw ci palaato boo xam ne ñoo leen ko digoon di ko fas yéene seq ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñu ngi liggéeyal lislaam ci seenu làmmiñ waaye la nekk ci seeni dënn tam bokk ak la jëfe ci seeni cër di tisaare njàngaleem lislaam waaye fas yéene nekkit awokaab lislaam ci lépp loo xam ne tuumaal nañ ko lislaam wala ñu tuumaal ko sunu mag ñu baax ñi ñu fas yéene taxaw défendre loolu ci waxtaan wi noonu lañ ko digg woon xam ngeen ne ci annonce ba dañ leen waxoon ne 17 heures incha allahu rabbi lay tàmbali waaye dogalu borom bi subhanahu wa taala wàccoon ci njabootuk seexuna ahmadul xadim ci lenn ci ay sëtam di soxna Haysatu Waalo Mbàkke bintu Cheikh Saalih Mbàkke mu wàcc ab liggéey tey jii ci alarba ji ñu doon ko denc ci waxtu tàkkusaan wi ñu ñaan sunu boroom mu gàttandu ko ak yërmandeem ak tawféexam di ko jaal yoonu murid wépp rawatina njabootuk sëriñ saalihu yi tàmbalee ci sëriñ Moustapha mi mu bokkal ndey ak baay jaar ci sëriñ seex ba ci ab taawam sëriñ seex waalo ak sëriñ Mamor Kebe ak ñeeñ ko seqal ñépp waaye di ko jaale umma islamique bépp ndax ñoo ko bokk mbokk yi tey jataay bi ni ñu leen ko digge woon dañu cee fas yéene seq ak sëriñ saalihu baal sëriñ saalihu baal bokk ci ndaw yi nga xam ne ci keppaaruk sëriñ saalihu ci lañ jànge alquranul karim ba mokkal ko waaye jànge ci loxoom xam-xam ba suñ boroom def ci ñoom seeni dënn loo doya liggéeyale lislaam <clears throat> waaye day cee wéyale liggéeyub Seexuna Ahmadul Xadim mu samp daara di fa jàngale ak di fa yare waaye danañ ko seq ak sëriñ Seydina Diop al Kokiyu moom it di boroom xam-xam bu mag bokk ci askan wu mag e, di askanu kokki waaye di ko seq ak imaam Cheikh Baye ku ne miin ay jataayam ci télévision yi ak rajo yi mu bokk ci taalibey bàyyi nekk fële ca Madina bàyyi ñoo koy siyaar incha allahu rabbi danañ bokk ak moom jataay bi. ci téléphone waaye danañ ko seq ak sëriñ Moustapha Diop Paris bokk ci taalibey sëriñ Touba yi waaye bokk ci boroom xam-xam yi bokk ci it ñi nga xam ne yàlla nattoo na leen ñu leen di waxloo ci tànt yi waaye nag ñuy défendre lislaam ci bépp fànn ak di ko weddil ay tuumaam yoo xam ne ñi ngi koy tuumaal lislaam wala ñu di ko tuumaal a tariqatu suufiyu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ngi koy défendre waxtu wu ne Euh, ñu fas yéene tàmbali waxtaan wi rek bàyyee ko ak sëriñ Saalihu Baal mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci mbooleem site yi nga xam ne ñu ngi koy def en ak rajo yi di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ngi ci suuf te dañuy jàppale ñu ngi ciy séntu ku mel ne sëriñ naa bu sa cumbuleen xam naa yoon wee xat waaye moo war a na nekk modérateur wu jataay bi waaye ku ne xam ne mu demee kër sëriñ saalihu te xam naa ne ma nga woon ca jataay ba waaye kon sëñ saalihu ma bàyyi la rek nga nuyoo ak téléspectateurs yi ci boo nuyoo ba noppi nag ñu ñëw ak yow bala ñuy jox sëñ Seydina Diop mu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi war a def ay intervent ci téléphone bi incha allah danañ leen jox kàddu gi waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan.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 mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaro fu waaye mën a ci nuyoo lislaam bi nga xam ne moom la boole mbooleem jullit yépp muy nuyoo bu doon bu matale te muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ñaanal suñu xalifa am Sayyid Muntaqa suñu borom sàmm ko te dëgëral ko te gën ko fee yàggal mbooleem mébét ak yéene yi mu amal liggéeyal moom lépp mu def ci lu kawe njortam di jaalit mbooleem bu aju ci kër Seex Saaleh Mbakke ca buntu ba sëriñ Seex Ahmadu Mbakke ibnu Seex Saaleh di masawu mbooleem taalibe yi nga xam ne ci samam kenn la di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci kenn ci soxna yu tedd yooyu nga xam ne ay nit yi ajjana la doon dox ci kaw suuf te tey jii mu wuy ji suñu borom te malawul alam di ñaan suñu borom mu gën a sëmbaratal ci kawam yërmandeem ak i leeram te gën fee yàggal njaboot gi mu bàyyi gannaaw te teg ci ñoom loxo wa tabaarakallaa la nuyu bu baax sëriñ Fallou Garas ñu ngi nuyu bu baax di rafetlu bu baax it jotaay bi mm-hmm. ndax yu mel nii warul dikkee mm-hmm. ndax euh, euh, diine ko soxla mi waaye sax réew mi daf ko daf ko soxla mm-hmm. kon ñu ngi lay delloo kàddu gi ba ci kanam incha allah jërëjëf kon bala may jox yeneen bokk yi rek sab nuyoo day ànd ak sab laaj te laaj bi mi ngi jëm ci ñun lii nga xam ne moom lañuy dund te di ko dundandoo ak ñu bari nag ndax ñun sëriñ bi daf nu jàngaloon ne digal naa leen ngeen roy ngeen tënku ci ngirum imam Malik te imam Malik yàq naa bokka na ne bokk na ci ñi jaar ñi jaar ci ay loxoom ñu bari ñoo xam ne dem nañ ba bér seen ngëri bopp damay wax toujours nag ne woote aw déggin ci am ngir warta jur ak tàqalikoo ndax tàqalikoo moom alxuraan moo ñu ko tere waaye wuute moom fi lañ ko fekk boroom xam-xam yu bari li tax xam-xam yokk mooy wuute aw déggin waaye nag ginnaaw alxuraan moo ne dama leen a tere tàqalikoo ñàkk déggante ay mbir warta jur ak tàqalikoo Sénégal nag mu mel ne lu ci ëpp ci mbooleem tariixa yi ma fi déggagun dégguma fi benn tariixa bu tënkoogul ci ngërum imam malik waaye bi ñu tënkoo ci njàngaleem imam malik it gis naa ne jur na ci senegaal ak bennoo jur na ci Sénégal ak jàmmoo ba réew yi ñu wër la nga fay dégg te ne ay nit na ñun am na ci ñu jàng ci biir réewum Sénégal ñibbiwaat ci seeni réew am nañu sénégalais yu jàng bitim réew ñu buwaat sunum réew waaye taxut ñu roy leen ci lenn loolu la ko la ko la ko jur mooy am gi ñu am kilifa kenn ku nekk booy dem yëg ne bàyyi nga fi kilifa te kilifa googu nga fi bàyyi mission bi ñu ko joxoon mu réussir ko ba man cee joxoñ mbooloo mu bari moo xam ne ci moom lañ defaroo te duñ duñ xeex duñ gerew duñ sànni ay xeer bëggoon na ñëw nag ci jëmmi tasawuf moomu meññat mi mu jural Sénégal jërëjëf euh, sëriñ Fallou ni nga tënkee laaj bi la daanaka dafay wax ne boos ko tontu war rek sax émission bi jeex na fees na dell ci ni nga ko jaare xam nga seexul xadim ci wooteem bii nga xam ne dafa woote woote tasawuf bu tënku ci sunna xam naa ci gisinu sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa ci tasawuf sax loolu moom xam naa temu boppam la mm-hmm. waaye bi mu ci wootee it dafa am lu mu digal taalibe yi mooy maa ngi leen di tënk ci fiq malikiya bu dee ci tawxiid ashariya bu dee ci lixsaan tasawuf mu mel ne ashariya pas-pas la boo xamante ne bu yaatu la nit yi tasawuf yi ci ëpp ci lañ tënku ndax may wax ne nit tasawuf yi daanaka ci maturdiya wala ashariya rek la ñuy tënku ci wàllu pas-pas boo demee ci malik yi noonu nga ko waxee. Mhm. senegal maaliki ya moo fi masa maase. Mhm. loolu da nga ci déggee sax sëriñ biir ab rôlam ci wooteeg dëppoo. Mhm. ndax mag ñi mas nañ koo laaj ci yeneen ngir yi. ndax moom daana daana jëfandikoo ngir yëpp. daanañ ko gis léeg-léeg mu jëfandikoo loo xam ne xam ne lii ci anabile lañ koy fekk. léeg-léeg mu jëfandikoo loo xam ne saafin ya waaye bi comme taalibe yi laajee daf ne yéen bu ngeen ma gisee may def lu juyoog Malick yéen na ngeen yem ci Malick. nga xam ne kon loolu moom. ndigal la mm-hmm. lee jagaleeg boroomam ak goo xam ne moom moom moo eggoon ci niveau booba di ko def mm-hmm. te loola lam ca jublu mooy ngir taalibe yi tënku ci Malick dafa bokk ci liy bennale réew mi bu xoolee réew mépp ñoo bokk ci ay ahkaam naan lu ñuy attewoo ci ci charian mm-hmm. benn naanu waaye te mooy malikiya réew mi yëpp yi ñoo bokk ci pas-pas ashariya réew mi it la ca ëpp ñoom ci tasawuf lañuy ñuy euh, mandaloo ci seen lexsaan donte nag euh, tasawuf moomu diggam ak mag ñi ko loolu damay wax ne am na histoire bu mag buñ ci war a nettali waaye xëy na mm-hmm. waxtu wi duñu ko may ànd ak ni xate mm-hmm. te xëy na am na yeneen yu war a jàll mm-hmm. waaye mën nañoo gis ni tasawuf benn yëg-yëg la boo xam ne dafay pratiquer àddina ak alaaxira loolu nag ci wuuteeg ñi ko bëgg a déggee ne tasawuf mooy wan gannaaw àddina loolu Serigne Touba andi na ci misaal bu baax hmm. damay wax ne tasawuf mag ñu bari ci lañ tënku may man Serigne Touba ma gën a jege moo tax ci laay joxe ay misaal hmm. lu may joxe hmm. boo xoolee Serigne Touba juróom benni aspect yi nga xam ne bu fekkoon dangay ngay tudd ne am na asas mu yoonu murid am nay fondement da nga naan principe yi juróom benn lañ juróom benn yooyu dafa matale àddina ak alaaxira wane gi mu wane ne ku ànd ak moom na nga tënku ci xam muy benn bu ñaareel bi it na nga tënku ci jaamu yàlla muy ñaar bu ñetteel bi na nga tënku ci di nangoo liggéey liggéey jox xam ne yow da nga ci euh, aare sa ngor ak man ci di joxe addiya ak la ca aju la ci aju dëgg la muy ñett bi bu ñeenteel mooy na nga jaayante mooy na nga am ab sëriñ waaw mooy ñeenteel bi mm-hmm. bu juróomeel bi mooy nanga nga ànd akub yar bu juróom benneel bi mooy nanga nga nangu di def xidma mm-hmm. xidma mooy lan liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi mm-hmm. maanaam fexe bay jariñ mu mel na juróom benn principe yi boo doon tënk yoonu murit génn ko waaye da ngay laaj nag léegi dund àddina ak gu àllaaxira ndax dana génn juróom benn yi da naan déedéet loolu moo jur nag tasawuf ci Sénégal lépp loo gis ci Sénégal ci aspect économique politique social lépp ba ci ba ci culture lépp waa tasawuf ñoo ko instauré ci Sénégal moo tax saa boo nee damay gouverner wala damay taxawal dara ci réew mi ak lu mën a tudd nga bëgg cee seeti tasawuf loola forcément day échec amul wérante waaw loolu forcément day échec ndax lu tax mooy li ñuy tudde tey baasu sénégalais gu ñu mën a xam maanaam li ñuy tudde culture loolu nit yi tasawuf ñoo ko samp ci réew mi ba noppi li la koy firndee li nga junj léegi mooy li ñuy tuddee kilifteef xoolal bu baax tasawuf ni mu fexee ba nit ñëpp am kilifteef bu leen tënk wax nga ko léegi moom lañ rawee réew yëpp boo bu fekkee da nga euh, introsé histoire nga dellu tuuti ginnaaw ci jamonoy Léopold Sédar Senghor muy dund beneen diine tubaab yi ñëw defar ko ba mu jekk installé ko tegal ñu ko. Mm-hmm. imagineel bu ñu amutoon ay kilifa yi tasawuf oh. kon réew mi fan la jëm. dëgg la ndax it tasawuf rek mooy mooy mooy ñoom ñoo am tasaamox li ñuy tuddee euh, cohabitation. Mm-hmm. maanaam mën a xajoonte. tasawuf ñoo ko am am gu toll ne mën nañoo dëkk akub yéefar jariñ ko te duñ loro ci moom. Mm-hmm. mais beneen bu dul benn danañ bañ dëkkoo ga ba fitna yeewu ca walla sax dañ cay loro bu fekkente ne nangu nañoo moom loolu nag bu ñu xoolee loolu rek ma ngi cee jël baasub baasub li xettali Sénégal ba mu egsi fii mu egsi da nga yëg ni dafa bàyyi ko ci tasawuf waaye ñu bàyyi xel yi ne tasawuf bokk ci liy liy yar doomu aadama ba même bu yàqu woon ci kaw sax man ko mënees koo jariñoo ci biiram fi ne bu ñu gisee réew mi ni mu bindoo ak xeeti li fi ceddo yi instauré woon ni mu bindoo woon bu fekkoonte ne ñi ngi doon yore beneen pratique bu dul tasawuf naga ni réew mi xar na ñaar. dëgg la waaye nit yi tasawuf yàlla daf leen a dimbalee ñett yi gën a jafe. Mhm. mooy bu résister jotee dañuy résister dañ koo roy yonent bi. kiltaa yadayhi laha sahyun tulaasimuha baslun wa basun liman laanu wa man jaaw nitu tasawuf noonu lay dundee. Mhm. ñaari point yëpp daf koy mane soo ko indee ci fitna dana ci pratique yow ba nga defee ne loolu rek la waaye soo ko indilee ci jàmm yi day saxal jàmm dundal ko ba nga defee ne leneen amut noonu sëñ Tuubaa melalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. la nit ci tasawuf fii di dundee. loolu moo sabab réew boo seetloo tey waxuma sax nga wax senegal mais histoire u tey loo fi gis ñu combatre ko ba mu tege ci yoon wala jihaad ju laaj deret mbaa mu laaj coona bu fi nitu tasawuf deful amut. toppal na consulter histoire completement lépp luy luy luy defar àdduna mhm. baa muy defar àllaaxira suñ demee ba mu bëgg am gàllankoor nitu tasawuf mooy jóg taxawal taxaw taxaw jàkkaarloog loola loolu nag moo dimbali Sénégal ñoom li leen yàlla may chance mooy dañoo ñëw rek seeni i mag tënku ci tasawuf dëgg léegi nag jamono ngi dox ñuy gën a xam liñ li ñuy jariñ askan wi malheureusement sax nag am na ci ñooñ seenu xëra leen ci dugal mais dëgg-dëgg gëstuwuñ ñoom dëgg-dëgg tasawuf loolu sax moo ñu jural culture tubaab yi am ñoo xamante ne ndeysaan bëgg nañoo jubal waaye dafa am culture bu dugg seen bopp ba pare. ñu sàkku sax imaam Cheikh Baye su jàppandee moom mën naa jaar ci téléphone bi directement balaa euh, Serigne Saliou Ba di daaneel. nga xam ne bu ñu xoolee nit ñi ci so seen bopp ni ñuy dundee tasawuf nga xamante ne ñu ci baree bari ci ñàkk jàng lañ ko teg waaye njiit yi ñu am ak kilifteef yi ñu am. daf leen a jural ñu man leen a encadrer ba na du yeewu ci réew. moo tax damay wax ne aspect économique xëy na bu fekkoon temps day yaatu ñu laal économique. Mm-hmm. ak ak ak tarixa yi. danañ ci ñëw. loolu loolu day waxuma ne sax ngay tuddu turux yëpp mais boo jëlee benn tarixa bu mel ne murid ni mu bindoo. Mm-hmm. da ngay xam ne kenn mënta tabax réew mi te dugaloo leen économiquement. boo jëlee politiquement. ndi tasawuf yi impliqué wuñ ci direct dugg ci. waaye ñoom ñoo téye lëbe bi saa bu naree tàkk. ñooy ñooy ñooy manipuler situation ba dal. Mhm. saa bu waree baax it mhm. danañ waxe fa wax baaxe mhm. jëfe fa jëf baaxe ba mbir yi tege ci yoon. crise yu bare bare bare yi doon traversé réew mi li ci génn réew mi mooy nit yi tasawuf yi loolu loolu mën nga koo tudd ba ba ba ñëwee sax ci ci ci ci corona bi ñu weesu rek damay wax ne dama koy waxtaanee lu bari ne corona war nañ cee jàngale waat lu lu yéeme. Eh, ku tedd ki Serigne Mountakha décision bi mu ci jëloon boo ko doon xool ci. Mm-hmm. waa salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Eh, Imaam Cheikh Baye. waa sang bi ñu ngi lay ziar bu baax waay. ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax bëggoon naa nga fàttaliwaat ma tur wi. Eh, Fallou Galas Sell mooy wax ak yow. waaw kay sëñ Fallou Galas jërëjëf waaw kay. waaw yaa ngi yaa ngi doon dégg Serigne Salihou Baal. dëgg naa ko baax ndeysaan fi mu duggee ci tasawuf dëgg la ak sun mag ñi mhm. mu delluwaat ci ab ki ko gën a jege muy Cheikhuna Ahmadul Xadim ndeysaan euh, ndeysaan féete ñu ci wetu bawal gi mhm. euh, ku mel ne seexul seexul islaam seex Ibrahim féete ñu ci wàllu Saalum gi moom it tënk mbiram lépp ci fiqhu malikiya dëgg la waaye di dund tasawuf dëgg la ci liggéey bu rëy ñu bëggoon rekk nga ñëw ci meññatum tasawuf moomu lim jural senegal ak sun mag ñu baax ñi waaw jërëjëf sëñ euh, Gallas ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar baax di kontaan ci jotaay yu mel nii nga xam ne bokk na ci dër yi nga xam ne ci dër yi la mm-hmm. parce yi nga xam ne dañ koy waxtaanee nitu yàlla di fa waxtaanee nit ñu baax ñi di fa waxtaanee seen may ak seeni jëf ma ne loolu barab yooyu noonu mooy dëgg-dëgg li nga xam ne mooy tilaqu zikri bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan iza marartum bi riyaadil jannati farta'u naan bu ngeen rombee ci dëri aljana yi na ngeen witt ñu ne ko luy dëri aljana yi mu ne mooy géewu zikkar yi géew boobu nga def ku mel ni sëriñ Saalix Baal ñu ngi koy nuyu ci ubbee bu am solo boobu nga xamee def na ko sëriñ Seydina Diop alkokki yi moom it war a ñëw feggoog yow sëriñ Moustapha Diop mi nga Diop mi nga tudd ca Paris it war a feggoog yow xam nga ne jotaay boobu wala daayira bi daayira xam-xam la waaye nag lii mooy dëri aljana dëkk waaye sunu mag ñu baax ñi nag Sénégal dinaa ñëwee rek surtout ci côté bi nga xamee Serigne Salif bal ubbee na ko surtout mooy léeg-léeg nit ñi Sénégal dafa am ngelaw loo xam ne dafa romb bu yàggut mu nekk ngelaw loo xam ne nag yàq na lu bëree bëri waaye rëcc na it ay nit ñu bëree bëri taaliba yu bëree bëri yàqoo nañ waaye it bëri na ñoo xam ne it ñu bëree bëri ñoo xam ne it seen pas-pas woyofee na ci mhm. yoonu tasawuf dafa nekk yoon woo xam ne islaam dafa am ñetti maqaama ñu ne mooy islaam wala ñu ne diine sax moo am ñetti maqaama ñu ne mooy islaam di imaan di ihsaan ihsaan loolu yëpp da ko jàng ci xadiisu jibril ba bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane ne mooy shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaami salaa itaay zakat ba mu jeex wa sawma daa xajul bayt dañ ko la mooy mu jàngale it mooy an tumina billahi malaikati wa kutubi rusuli wa axir bi qadar xayri wa sharri waaye dañ ko la nag lam tontu ca ngay xamee nag ixsaan gii mooy aqa maqaami diin mhm. parce que bañ ko laajee lan mooy ihsaan mu ne lan mu ne an taabud allaha ka annaka taraaw na nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis mhm. fa in lam takun taraaw fa innahu yaraak boo nekkul di ko gis sax moom yàlla mu ngi lay kon amaan na gis mën naa am am benn dox ci fóode yi bu mag a mag a mag bu àgg ci yàlla mu ne fa in lam takun mooy boo fi nekkatut sax taraaw nga gis ko mhm. kon xam nga lii du yëfu xale waaye du yëfi gone waaye it du yëf yoo xam ne kullu man hëbba wa dabba dangaa war a ñëw rek di ci sànni di ca wax wala ngay xarab ñuñ kër googu balaa may départ maa ngi jaale alxadra albàkkiye ci Touba soxna Waalo Mbàkke mi gaañu tey ñu ne mooy taawu sëriñ Saliou Mbàkke almarxum di suñu sëriñ bu mag euh, di ñaanal soxna wàllu na yàlla xaaral ko àjjana yàlla na dee di noflaayam yàlla teg loxo ci li nga xam ne mooy njaboot bi kon li nga xam ne mooy ihsaan nga xam ne mooy tasawuf mooy lan mooy fexe nit ñi daal di am taxaquq ci maqaama wu ñetteel bi ci islam muy ihsaan hmm. parce que boo xoolee islam wala boo xoolee diine dafa am islam am iman am ihsaan hmm. dafa am tawba am istiqaama am taqwa tawba mooy tuub istiqaama mooy njub taqwa mooy ragal yàlla iman am lan am sidduku mooy dëggu ixlaas mooy sellal tumaaniina mooy am dal ci yàlla ixsaan am muraqaba mooy fuglu mushahada mooy janoo maarifatu moom mooy xam kon ixsaan moo gën a garaaw <laughs> kon nag sunu mag ñii nga xam nag dañoo fexe fexe ba ki nga xam ne mooy taalibe bi ki nga xam ne mooy jullit bi ñetti maqaama wala échelon yi nga xam ne dina ji am na ko yëpp mu naanuwaay yooyu yëpp mu naan sax ba naanuwaay ba mujj ba mu daal di say naan ba man bi nekk jaamu yàlla boo xam ne jaamu yàlla bu set jaamu yàlla bu set jaamu yàlla boo xamante ne dara am du rax bokkaale boo xoolee Sénégal ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul <laughs> tey jii nii doole bi nga xam ne am na ko ci réew mi nufuuzun aali bi nga xam ne am na ko ci réew ndax dafa tëddoon di nelaw rek xëy am ko. déedéet. ndax dafa ndax dafa jëw rek ne man maa ma maa ne fii Mbàkke Bawol nangam nangam am ko. déedéet. dafa liggéeyal boromam sonn ci boromam boromam fayee ko ay nit ñoo xam ne buñ leen naaw leen ci jaww ji ñu jëm ko. bu ne leen des leen ñu def ba leen ba leen ñu baax ndax réew moomu noonu nit war na faa nekk di saboté Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul déedéet kuy taxaw naan bin Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu raraa wa inni ahmadu wax ko ba pare daal di koy jëfee samp ay diwlin dafa ay nit dafa ay boromi xam-xam créé ay zawaaya fi ci àdduna bi nga gis meññitam ak kum defal foo tukki ci àdduna gis suñ ne fii mooy kër sëñ Touba ndax tëdd nelaw moo ko mayal. déedéet. ku jàkkaarloog tubaab bi ah. jàkkaarloog tubaab bi ak doole bi mu am ak kàttan gi ko yàlla may ak li nga xam ne tubaab bi seytaane mu ko koy jaay nga résister ko ba yàlla jox la ndam ndax kooku kuñ mën a tuutal la ci mim réew. Mm-hmm. ndax réew mi mën naa wax développement. te événement bu rëy bii nga xam ne mooy dix huit safar li muy créé ci liggéey bi ci dëkk bi li muy dugal ci côté économie ndax loolu nit mën na koo dàq. déedéet. te loolu zahir la rek buñ mën a waaw xoolal ci baatin ñaata nit yoo xam ne ay la lañ woon wala woon ay agresseur wala nit ñu bëggoon a aw feneen suñ sëriñ ci jël leen wala ma ci misaal Cheikh Ahmadou bàmba jël la defar la ba nga nekk nit samp la ngay defar ay nit ñaata yoon. kenn xamul nu mu toll. dafa am benn wuyu ci wuyu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. muy muy tagg sëriñam Cheikh na Tidiane mu ne kam aazal imaamu suuqata qawmin kam azillat li zulmihil umaraaw mu ne sëriñ bi ñaata baadoora la jël mu def leen ay buur def leen ay nit yu màgg. waaye nag kam azillat li zulmihil umaraaw oh dafa mel ne téléphone bi dem na. Eh, ñu jaajëf maa ngi lay dégg. mais ah, bisimilah. li mu defar ci ay doomu aadama. Mm-hmm. lu mu créé ci li nga xamante ne mooy ci dëkk bi ci li nga xam ne mooy cohabitation normale. Mm-hmm. suñu galas est xam nga ne senegal ni jullit ñi dominé chrétien yi ci lim ci catholique ci lim amul benn lëm bu dëkk bu mën a xajooloo ci àdduna. Mm-hmm. loolu mooy suñu saalo baax li ma wax sànq mooy tasaamox bi. mooy xajoo bi. xoolal Nigéria bii nga xam ne ñun bëri lu ñu fay mais xoolal histoire bi fa am ci jullit ñi catholique yi demal beneen dëkk demal fii gi ma jàngee demal beneen dëkk jullit fu ñu ëppee catholique rek léegi-léegi nga gis fa benn jafe-jafe daal di xew lan moo ko waral al nufuz al wahabiya bi nga xam ne léeg-léeg dafay faral di feeñ te fu ñu am doole wane li nga xam ne mooy seen doole waaye suñu mag ñii mhm. yàgg nañoo dëkk ay buur mhm. yàgg nañoo dëkk ak ñoo xam ne gëmu di doxal ci ñoom lakum diinukum waliya diin di dëggal ci ñoom kat dund ay gëmuñ diine islam waaye nekkuñ koo xamee dañ ñuy xeex ñu am ak ñoom li xam ne mooy silm waaye janaxu li silmi fa janax nag in udtum udna ci nii lañ doon nekke léegi nag tey ñu gis yàq-yàq yi nga xam ne mi ngi commencé am ci société bi bu mel ni dafa am ngelaw loo xam ne daf fi ñëw rek ne daal liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba day liggéeyu Cheikh Ibrahima Niass day déranger. Mhm. liggéeyu Cheikh El Hadj Malick day déranger. liggéeyu Serigne Thiénaba dafay déranger te ñii bu dëkk bi amee jàmm bu dëkk bi amee salaam nit ñi mën a xajoo mën nekk si jàmm ñoom ñoo dëgg la. bu nit ñi mënee dund diine islaam boo xamante ni ba mu ñëwee fekk na fi aada fekkoon na fi ceddo fekk na fi yenn yu baax diine xajoog ñoom ba jël yenn yu bon yi dindi ko yu baax yi fekkoon mu ànd ak moom c'est grâce à eux. loolu nag dañ leen ko war a nangu. dëgg la de. tey jii nii xoolal Touba ci exemple mooy deuxième ville lañ wax ci fi nga xam ne mooy Sénégal yu ne titre foncier Cheikh Ahmadou Bamba la mu am situation boo xam ne bu spécial la tey jii nii ñaata milliards moom la ñuy jël doomi dëkk ba taalibe yi di ko def ca dëkk ba te léeg leen duñ ca xaar état. suñu xulafaa yii nii si jamonoy Macky Sall ba ca Abdoulaye Wade état yi dañ doon soxla xaalis léeg-léeg di leen ab xaalis suuf ñoo ne abal ñu leen di delloowaat te kenn du ko yëg. dëgg la bi ci Covid bi xewee ñii naan ñii naan amut ñii naan dëgg la ñii naan dëgg mais suñ sëriñ si ñoom yàlla may na loo xam ne mën nañu xam lay zaahir xam lay baatin. Mhm. sëriñ Mountakha la la def bi gars yi wéretul ba génnee mu ngi nii daal di teg. dëgg la kan la ko dimbalee. dimbalewu ko boppam. waaye ci boppam lay delluwaat. Mhm. parce que ay doomam la ko def. ci réewam la ko def. ci état bi la ko def. ci Sénégal la ko def. kan moo def lii nii. xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. macha allah tey jii nii xoolal boo génnee ci Afrique ci jamono boo xam ne jamono bii maa ngi dégg ñu ne Sénégal ñu ngi am ministre de l' intégr de de de l' intégralité africaine mais yow intégration africaine. boo ko bëggoon a dox fii ci Afrique boo ci génnee waa kër Cheikh Ibrahima Niass dana yomb mu sotti. déedéet déedéet. boo demee Nigéria boo demee Niger boo demee Gabon boo demee Mali boo demee Burkina boo demee Soudan boo demee Érythrée Tchad. ba dem Amady dafay fekk. ba tax ñooy kilifay réew ma. Afrique kay da koy génn. waaw te ñu kilifay réew ma. Mhm. léegi nag ci jamono boo xam ne yaa ngi dox ci ministre de l' intégration africaine ñooñu nga leen di zappe wala nga leen a woon gannaaw. ndax loolu gën a yomb nga doxal ko. déedéet ndax dina bëgg a benn lay Afrique à travers Sénégal te am nga koo xam ne mën naa jaaree ci moom yomb. ku ne gis na daaw Soudan bi nga Soudan xeex bi fa amoon ak coow li fa amoon. ci diggante tribu yooyu noonu. mais Cheikh Mouhamadou Mahi ba mu demee dafa wax kaaw ñoom mu jeex. mu jeex tàkk. ñëpp daal di nangulante ñu teg ngànnaay yi. léegi nag loolu nga xam ne ñun am nañ ko. doole yooyu nga xam ne am nañ ko boo demee fële nga xamante ne mooy xabiral Malik yee ci waawoon. Cheikh Hadj Malick ca xam-xam ba Cheikh Hadj Malick ca jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Hadj Malick ca xam naka la jamonoy doxee ca zawaa yaaya xoolal xam-xam ak li mu teg xoolal njabootam tey li ñuy def ñaata nit lañ gindi ñaata nit lañ teg ci yoon tey jii état yi nii di leen zappe di yónni seen ay ndaw ñu leen di dóor di leen sànni ay xeex ci suuf tey jii bu taalibe yi génnul dëkk bi yëngu coow ni ñu ne na sëriñ si wax maa ngi woo sëriñ si ne leen wax leen taalibe yi ñu toog te bu ñu waxee taalibe yi dal leen ñu dal dëgg la de sëriñ Muntaxa tey nii bu génnoon ne képp ku may dégal si yoonu murit barab sàngam kat bu fa dajee ji toogal kenn mooy dem kenn buñ tiitoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ca ñoom la dellu te dafa am benn message boo xam ne il faut ñu koy lancer ndaw yi réew mi ak waa réew mi ñu xam ko taalibe bëtam warta yegg foo xam ne war na koo may muy gis sikkab sëriñam taalibe warta gis sikkab sëriñam dëgg la al laa yurid bu dee taalibe bu defaru bu dee waaw jërëjëf al muridu laa yurid taalibe amul lu mu bëgg boor bi cheikhaka walaw abakaaka lakinnahu lil xayri qad hadaak yooyu ñu bàyyi ñëpp jàngal ñëpp sa sëriñ lépp lu mu def gëmloo ko donte dalaa jooyloo jàppal ne rek ci yiw la bëgg a jëmee même taalibe buy dem ne sëriñ bi wax na lii waaye ànduma ak moom ci lii politicien bi moo ma gënal sëriñ bi. imaam Cheikh Baye sëriñ bi. imaam. waaw eh, da teg foofu sa baaraam ñu ngi dellusiwaat. jërëjëf. ndax fi ngay junj fi lañ jëm si. jërëjëf kon su ko defee ñu bàyyee kàddu gi ak sëñ Seydina Diop. jërëjëf mi ngi lay déglu. gis na meññatum tasawuf lim jural senegal jërëjëf te it sëñ Moustapha mi ngi yéglu su ko defee nag ñu soog ñëw ci deuxième état bi incha allahu rabbi kon baax na ñu ngi wàccaale liñ bi te déglu ñu ñu ñu jaajëfal la wax ne rek euh, lii mooy jur jàmmi réew mi jërëjëf gis nga damay wax toujours ne politiciens yi hmm. ñi bokk gis-gis ñëpp ànd nañ dëgg la te li ñuy naxe réew mi hmm. damay wax ne toujours ne ab ab ab ab républicain hmm. akub démocrate akub communiste akub socialiste buñ ñu déggoo rek am na ku ku wàcc ab àndam dëgg la bu fekkee ne gën nañ li ñuy wax. dëgg la te parti boo dégg rek dafa am fu mu jooy jëm mooy ngir yi. Mhm. kon parti bu ñu demee ba ñoom ba mën a booleen lu tee ñun ñi nga xam ne ñoo suñ di diine ji liñ bokk mooy dëgg. Mhm. ñu mën a ñu mën a ànd. te fekk nañ kilifa yi ànd de. ku ci yoonam niwut mooy dikk wane nañuy ànduñu. wallaahi waaye lii bokk na ci liñ bëgg mu mu dañ ci réew mi. mooy bu palaatoo amee ñu dem jëli cene ba kenn. jëli Tiwaawoon kenn jëli kër Baay Ñas kenn jëli kër mm. Imaamul Mahdi yu kenn indi kenn nag ku murit ñoo xam ne ñu nii ñoo ko bokk. dëgg yoonu kenn nekku ci. mas na maa dégg yàlla na yàlla dolli ngërëmam ak njëgalam euh, sëñ Ablaye Thiaw Laay mm, mu waxoon ne bu doon cinéma ba football sax ku la neex faral. Mm. kon man am naa farak am naa droit farak waa kër Cheikh Ahmad loolu loolu mbir la kon imam Cheikh Baye ñu ngi koy jaajëfal kon sëñ eh, Seydina Diop déglu nga sëñ Saliou Baal bi ngay agsi eh, mu ngi nekkoon rek ci meññatum tasawuf mi eh, lim lim def ci senegal ci jàmm jeeg la ca aju lépp dégg nga itam imam seex Baye ca Medina baay moom it fi mu àddoo ñu bëggoon rek nga ñëw laata sëñ Moustapha Diop di dugg ñu dem ci deuxième étape bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. sëñ Saliou Baal. xam naa yoon yi moo xawoon a xat lool. la waaw ah, bu baax a baax. comme bi génn léegi li wax léegi ndax tasawuf euh, daa nekk loo xam ne nit ki day defar ak xol ndax ñëpp dañoo jël seen jëmm yooyu def ko ni suuf. nga xam nga ne suuf moom léppay aju ci kawam bu mhm. baax dana yéeg ci kawam ku bon dana yéeg ci kawam mhm. des na xëpp ci lu baax na xëpp kawam mhm. daawa di dékku lépp ab suuf yi dëkk euh, yi nga xam ne war na koy jàmbat mooy ci digganteem ak boroomam ci ab xol bu taq wala xol bu tilim wala ak rëy wala kiñaan wala yéem say jëf wala ngistal wala yi demee noonu ab suuf yi loolu mooy ab ja ab jàmbatam euh, tasawuf nag buñ ko defee taarif ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool maanaam ci mafhum ci tasawuf euh, ñu bëri dañoo yaakaar ne tasawuf moom ab kuréel la boo xam ne dañuy dajee di tëgg ak di fecc wala di def yoo xam ne dëppuwut ak lislaam loolu taxutoon sax mag ñi ne loolu mooy tasawuf tasawuf moom mag ñi dañ ko dund ba pare bind ko bàyyi ko fi nga xam ne eh, yenn saay moom eh, njaboot moom nga gis ñoo xam ne dañuy jël yoon woo xam ne bokkut wa mag ña nekkoon ab sàmm nag moo mel noonu faw nga sàmm ab mbooloo moo xam ne wala ab jur goo xam ne faw ak jur rëcc dugg feneen moo tax sëriñ bi bi muy wax ci tasawuf dafa wax ne awluha talaazumul kitaab wa sunnati almuxtaari si sawaab wa tarku ahwaai wa tarku bidaai wa kazaaka tabdiilu suyuuxil xushaa'i dafa dafa wax ne li njëkk ci tasawuf mooy taqoog alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ndax nit ki saa yu moyee ci alquran li alquran di digle mu nekk ca jaare ko ci njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem loo xam ne ahwa la ahwa mooy li ngay jël ci sa bànneexu bakkan rek ca tegu ko ci benn principe nga xam ne euh, mën nga koy def ngir rendre compte wala ay demee noonu loolu mooy tar ko ahwa tar ko bidaa mooy lépp lu ñu sos ci loolu bu ñu ko sosee doo boo ko dàqee du dem ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy bidaa nit ki mën a nañoo créer loo xam na boo ko xoolee bi ci biir alxuraan bañu ko sunna junt bi sallallahu alayhi wa sallam bañu ko waaye lépp lu ñu ko xoolee ci alxuraan alxuraan dàq ko sunna dàq ko loolu la wax bi loolu bokk na ci boo dee xool ci mbindum sëriñ bi daf koy faral di indi lu bëree bëri bëri nga xam ne lu ko ñor la ba ci topp mooy kasaaka tabjiilu suyuuqil xusaa bépp sëriñ boo xam ne ragal na yàlla rek danga ko war a màggal ca sëriñ bi dafay wax ne màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xam ba rek dafa mel ne màggal yàlla la kon loolu mooy adab ndax xam-xam bi lu mu bari bëri bëri ca ay teggin amu ca fa kasratul ilmi bi xayri adab jaalibatun ila asa wa taab li muy xëcc nit ki mooy ay loraange ak i coona ak stress ak xol bu tilim wala yaasu billah yooyu yu bëree bëri bëri bëri nit ñu bëree bëri ñàkk adab googu dana leen xañ lu bëree bëri bëri loo xam dee dees ko mën a dund ànd ak nit ñi kon képp ku yàlla màggal rek màggal ko loolu bokk na ci alxadar mooy nangu xadara nangu ndogul yàlla ndax nit ki lépp lu mu nekk wala mu am ko defu ko boppam yàlla moo xool ba mu neex mu def ko ko kon ñi nga xam ne ñoo ñëw ci senegal tey jiite mbooloo mi ñu ñëpp dañoo àndoon nekk benn réeroowuñ ci dara boo gisee seen mbind yi baatum almurid bu ñu ko waxee rek ñun ñëpp dañuy jàpp ne Euh, ci murid gii waaye boo demee ci téere Seydi Aji Malik gi baatu murid la istimaal bay jëfandikoo baatu murid lay wax mm-hmm. ba ci mboolem téere yi nga xam ne mag ñi ñu ngi bind ndax loolu may wax ne sëriñ bi ab wooteem lu yéeme la sëñ bi dafa isil muridu laa yuridu abada mm-hmm. xayru ridal rahmaan xaysu xasada mm-hmm. kon askanewul ko kenn képp ki ab jullit rek woon la ci baatu al murid mooy nëmmoo dara lu dul jëmmi borom bi subhaanahu wa taala kooku foofu la woote woon mooy woo jullit ñëpp boo gisee ak ñaanam ñaanal murit bàyyi tijaan xaadir wala keneen jullit yëpp lay ñaanal kon jullit képp ku ne ashhadu an laa ilaaha illallaah rek ci ñaanu sëriñ boobu nga bokk kon euh, di màggal ñu baax ñooñu mooy war ma rek ku yàlla jox war ma nga war ma ko ndax ab xaj sax ngeen baal ma ci baat bi nit ki bu ko xoolee sax wut xool am ngëneel ci moom fa kullu man yazruhu fawqa alkalaab fal kalbu xayru minum tu yàpp loolu am njàng la maanaam nit ki loolu lim ci liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy mu bañ a rëy bañ a xeeb kenn ndax waraaxi fii kulli xalqin xaq man xalaqa len lu ne nit ki war na koo sàmm ci digganteeg yàlla mi ko bind ak kum mën a doon boo déggoo falaa tuaadu man raaytumu u yuxriju laa ilaha illa allah kon képp koo xam ne gémmiñam mi ngi génne laa ilaha illa allah rek bul noonante moom ak ku mën a doon sëriñ bi bu dee ñaanal xamewut kii xamewut kaa ñëpp lay ñaanaloo moo dafa jàpp ne jullit ñëpp ak njabootam lañ kon loolu buñ ko xoolee mooy tasawuf dëgg dëgg dëgg mooy sa xol bi du ëmbal kenn lenn sa xol bi day set wecc kon loolu la mag ñi daan dund imaam Ghazali sëriñ bi mi ngi koy indi waxoon na ne xaddu tasawufi la dal Ghazali te jiiru ba xuluuba xuluuba naa lil waali bu ñu waxee xadd ci mantiq mooy loo xam ne bu ñu la ko waxee jëru ngay laajal keneen mm-hmm. tasawuf dëgg dëgg mooy jël suñu xol yi du ko dawal ci yàlla maanaam duñ fuglu lenn lu borom bi subhaanahu wa taala yenn saa yi da dégg ci tasawuf ñuy wax naan xadaratu illah wala teew ci xadara ba loolu mënees na ko firi nit ñu bëri dañ teew ca xadara ba ñi ay 30 secondes lañ day teew ñi une minute ñi une heure de temps nit ki saa yu jékki-jékki xol beeg xel meeg lépp jëm ci yàlla rek teew na ca xadara ba loolu dong la mm-hmm. kon teewante yi nag mu wuute am na ci ñoo xam ne moom mën nañ cee teew ay une heure de temps am ñoo xam ne sax trente secondes dong lañ teew ca xadara ba loolu mooy xadaratul ilaahiya kon jël sa xol bépp rek wutu ko yàlla kon nit ki saa yu jëlee ab xolam rek dem dëlmal ko suñu borom gisatul li muy geesu ci ginnaawam kon mag ñi loolu lañ koy dundee waaye ba ca topp mooy nga xeeb lépp lu dul yàlla ndax boo demee ci maj moom la sëriñ bi day wax lu am solo jamono jii li ñu war a def mooy fexe dëkkal xoli nit ñi tawxiid ci ñoom waaw ndax it ah, tasawuf li ñu ci jublu woon dëgg dëgg dëgg mooy sellal nit ki uyub yi nga xam ne mu ngi ci jëmm ji ñu fexe ba raxas loolu lépp ba mu set wecc kon kooku moom du talati tontu du talati leneen ndax it da ngay gis nitu yàlla goo xam ne ku set wecc la ci biir ak ci biti gis ku fële fële di wax ci moom lu ne di yàkk ci moom lu ne waaye bu ko gisoon da koy teral kooku mooy ab suuf yi nag ki nga xam ne day jël mbari di xëpp sa kaw soo ko gisoon yow moom la taq ci moom da koy faxas ba mu set wecc kon mag ñi ci loolu lañ daan yore mu wax ne waman li fiqin wa tasuufin jamaa walli si xoqalahu ayu tabax ki nga xam ne dafa boore ñaari mooy xam-xamu sharia ak xam-xamu tasawuf kooku mooy yey ñu topp ko waaye bu fekkee te masalan nit ki dafa dafa dafa jël bii bàyyi bi kooku it su ko topp ñaari ngay boole bu ko defee yow koo jox foo joxañ rek joxañ ba day leer waaw wa man tafaqaha bila tasawufin fa suuta fa suan sariin faxrif mm-hmm. mm-hmm. waaye nag wa man yakun bi aksi saa fa innahu ila tasaano saano shanuhu koo xam ne dafa am géeju ci xam-xamu shariha waaye nag euh, tasawuf moom wax ci dara ko sànni fële kooku faasix la faasix waaye ki gën a doy woor mooy ki nga xam ne nag moom dana xaqiqa rek lay dund bi du dund tasawuf kooku moom sindiq la. sindiq boobu moo gën a diis. moo gën a yeesu mooy mi ngi mel ne nëbbu ak kéefër di feeñal ak jullit. dëgg la. waaw nëbbu ak kéefër di feeñal ak jullit. ndax euh, damay fàtte ne nit ñi dañuy fàtte lu bëri baatu xadar boobu moo xoon dogal ñi ci bëree bëri dañ koy fàtte xanaa ko moo saa yu ma la xoolee am lu may xebeb ci yow ma xam ne yow ab jullit biir nga yow alxadar moom nëngutoo ko. li suñu borom dogal ci nit ki yow nangu too ko waaw damay fokkee faral di wax ci ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ku yër am mbindam damay ñaan ñëpp ndax it mën ngaa seetlu loo xam ne nit ki mën a cee waroo yow bul attaqué sëriñ bi bul wax ci moom ayib bul wax ci moom dara jëlal lim bind nga xool ko rek ba xam da ngay xam ne borom xol bu set wecc mooy wax dangay xool xam ne ku yéene ñëpp jàmm mooy wax kon ku mel noonu nit ki nekk di jël ay baat yu xam ne tegginew du ko aj ci kawam daa xamul kooku bu ko xamoon rek du ko dinga euh, sëriñ Moustapha Diop bu fekkee jàpp ni ne moom it mën naa jël téléphone am bismillah kon li ma doon leeral léegi nag mooy nit ki bu sellee jëmmi sell dëgg dëgg dëgg dëgg boo yëree am mbindam rek da xam ne kii lim ëmb ci xol bi mooy lim ëmbal jullit yi mooy aw yiw mooy lu baax waaye nit ki nag mën na di xuloog nit wala mi dal nit da koo xamut waaye bu gëstu boo xam que rek dana hee man def naa erreur. Mm-hmm. kon day war ci dong yi nga xam ne nag ñoo topp loolu ñuy feeñal am njàng mi ci loolu. bañ di wutal sab sëriñ noon wala di wax loo xam ne ku la gis mën naa xeeb ca la nga bokk ci fekk ne demewul noonu. loolu fi yenn saa it day day faral di am kon tasawuf moom ñaari xam-xamu sharia da koy jàng. jàng xam-xamu xaqiqa yor ñaar yooyu bu fekkee ku war a yori dong mën naa yori dong waaye nag bu fekkee danga am benn bi rek manqué benn boobu kon wooyu yow ay ay dong waroo ko yor mhm. ndax it mën naa indi ba ci biir ñu indi yeneen kàddu yoo xam ne dañ koy wax ndax yenn saa yi rek boo ko dee dund bi dund sharia mën nga di wax loo xam ne nit ki mën naa tëb fenn la lii nga wax kat ah sa wax ji teguwul ci lii teguwul ci laa teguwul ci laa te it boo xam ne dëgg dëgg dëgg day mel na la muy wax nag day am kon nag loolu dañ koy mat a bàyyi xel baax kon sëñ kii bi sëñ waaw sëñ Bokar mën ngaa kon ne tuuti laata sëñ Moustapha Diop di dugg si hmm. Moustapha Diop ma nga Dakar ah. euh, mën naa woote ci 33 943 48 28 33 943 48 28 ci lañ koy xaar waaw di fàttali bokki rek nag ñu ngi ñuy suivre ci site internet yu fasantikoo ci biir réew mi eh, di jaajëfal bu baax a baax imam Cheikh Baye ma nga ca Medina Medina Baye dana duggaat di jaajëfal suñu bokk yi nekk Canaba amoon nañ yéene lool àdduna si ci jataay bi eh, ak waa Mourchid ñi ñoom ñëpp amoon nañ yéene dugg ci jataay bi di jaajëfal sëñ Saliou Baal eh, di leen fàttali rek jataay bi li muy jublu jublu rek mooy bennoog Sénégal ak jàmm ji war a am ci réew mi ci Sénégal te loolu nitu tasawuf yi liggéey ci liggéey bu rëy rëy rëy ci mbooleem xeeti ngi tarixa yi nga xam ne séddalikoo nañ ci biir réew mi bu ñu wootee màggalu Touba nga gis waa Tivaouane def délégation waa Nja waa Ndiassane def délégation waa Kër Ba Cheikh Ibrahima Niass def délégation ñëpp àndandoo ñëw ci màggal gi bu ñu noppee noonu lañ koy defante ci eh, Tivaouane noonu lañ koy defee Medina Baye noonu lañ koy defee Thiénaba mu wóolu ne événement yooyu rek li muy jur ci réew mi eh, des na ci ñëwaat ci wàllu économie waaye wàllu bennale ak itam xeet yu war a ànd yaakaar naa ne loolu lu am solo la ma bàyyi la eh, fi nga toll woon laata ngay daaneel tasante ak sëñ Moustapha Diop waaw kon tasawuf Euh, sëriñ bi dafay jàngale wax ne wa man yaxut baxra xaqiqa bila fulki sharia faqumhu jala euh, koo xam ne dangay xuus ci géeju xaqiqa ca yoroo gaal goo xam ne mooy gaal wax sharia teg ko ci géej gi dem yow wéroo da dof kon mooy li ma doon wax léegi léegi mooy sëriñ bi di leer ci mbindam kon saa bu ne rek ki nga xam ne day ab suufi la ñaari yi moom da ko war a ngàndaayoo ndax it yenn saa yi nga gis ndax ak njaboot moom lu ne lu ne ci juddu nag yenn saay nit ñi danañ critiquer loo xam ne dañuy critiquer dëgg la mën nañoo critiquer loo xam ne dañuy critiquer dëgg la ndax ñenn ci njaboot yi ñooy féetarlu wax wax yoo xam ne boo xoolee ca ka sos tarixa boobu wax jooju waxu ko léegi nag ñoom bu ñu bëggee ñëw nag wax jooju nag xëpp ko ci mbedd mi faw nag nit jug na leen lii kat du loola te it boo demee ci. mbindum mag mooma dalay dëggal ne la lii ñu wax it demewul noona kon looy it ñu ci bëri bëri bëri war nañ ci bàyyi xel rawatina kàddu yi nga xam ne dana mën a jug boo xam ne day dal ci turuq yeeg yu demee noonu ña tontu na xam lañuy ñuy tontu borom xam-xam ñooy tontu nit waroo am ihsaas sa yëg-yëg rek dégg dara rek taal sa téléphone di tontu ca la ngay tontu yow amaane yaa ngay gën a dugal si sa bopp ndax euh, tasawuf jéggiwut alquran ak sunna ñaar yooyu dong la ci la tegu ñàkk a comprendre ak ñàkk bañ a comprendre donc ci nekk waaye ñii jiitu woon la chaque année ci alquran ak sunna dong lañ nekkoon nekkuñ ci leneen lu set wecc lu leer nañ ñi lañ nekkoon fexe ba jël jëmm raxas ab xolam ba mu set wecc mare diggante ak boromam fu mu toll am ixsaas yëg ci diggante ak boromam loolu dong la mag ñi laan dox ci nit ñi ci taalibe yi di ci bay ndax sëriñ bi dafay wax ne euh, wal xaasilu suufiyu aalimul amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil nee na euh, tasawuf daal bu ñu ko dee wax mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam rek képp kii borom xam-xam ci sa xam-xam yaa ngi koy jëfe moo xam tijaan nga moo xam salafis nga moo xam wahabit nga ab suufi nga borom xam-xam bi jëfe xam-xamam rek kooku mooy ab suufi kon nag nit ki bu fekkee mi ngi jëfe xam-xamam daala xadaala mënta ñàkk ci moom mooy maanu ragal yàlla lépp loo war a wax nga wax ko loo wërta wax nga wax ko lépp lu yàlla def ci nit ki ci jaam moo xam ci ay tedd nga la wala ci ay teraanga la nga nangul ko ngir jëmmi yàlla ci xam ne kii lii mu am këreelu ko boppam suñu borom moo ko defal. macha kon loolu mooy <laughs> ab suuf yi dëgg dëgg dëgg. macha allah Serigne eh, <coughs> Seydina Diop yaakaar naa ne eh, li nga leer naa ñu la sëñ Sadio. Eh, ñu koy jaajëfal baax ndakate li sëriñ bi jàngale na alxilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun mahadiraaya yor sa micro yi tiim la rek ngay ngay yor sa làmmiñ wu jub di wax ndakate nee na kooku du boroom xam-xam waaw xam-xam leer la waaw bu ne ci dënn nga xam ne day gindi nit ki <coughs> di ko jëmee ci ci ci di ko jëlee ci lëndëm di ko yóbbu ci leer bépp xam-xam boo xam ne dalay dugal ci lëndëm rek du xam-xam alxilmu laa bi kasarati rek bal innahu nuurun maa diraaya ñu jaajëfal la bu baax a baax ci biir ay waxam da ngay dégg nakate ñi contre ahlu tasawuf di wax naan alkitaab wa sunna sëriñ bi moom ba may jàngale tasawuf di ci digal waa këram lam leen njëkk a sënt mooy ñu taqoog téere bi ci teg ko ci sunna te jaar ci sunna alkitaab wa sunna waaw loolu loolu sëñ bi moo tax mu ne ab murit moom du yàlla ci moom lu dut foo ko fekk mi nga jukkib danaan jàngaloo mag ñi ñaar fukki isbi alquran par bis jàngaloo leen junniy bayti xasida sikkarloo leen ba noppi ñu dem liggéeyi te bu lekk jotee ñu mos tuuti nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti jóg nii la gaa ñu baax ñu def ba far ndomba ga lekk ba rek daawuñ naan ba man ci daawuñ noppaloo ci la sëñ Tuubaa yare yare mag ñi boo demee Tiwaawan cooc la alaaj Malik xaw a dee alaaj Malik du rakk ju mu bokkal baay du mag ju mbokkal bokkal baay waaye bi mu ñëwee ci réew mi doy wakkiru na ci yàlla doyloo yàlla liggéeyal yàlla dem ci ab dëkk ba ba dëkk boobu bépp maase ànd jox ko seen bopp sañ tuuti waawoon gaaya la ganee àdduna ñu duppee ko Cerno Ale malik Sow mu jàngal ko alxuraan foofa baayam teel a génne àdduna ca doy rek ko mu del siwaat fii mais gëm boppam ak dëggal yàlla teg yàlla ni ni mbokkam mu baax mi def di sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ba mu ne bërët la wuti yàlla te nangu dara lu ko gàllankoor digganteem ak boroom sëriñ ab Ahad waxoon na ko noonu ne woon ba mu ne bërët jëm ci yàlla loo ko bëgg a wan leneen lu yàlla daf lay wax ne awma soxla ci loolu ca yàlla rek laa jëm ba ne taraw liis nag rilwaanullahi taala akbar wax na naw mi hibadatun rabbi la sharika lahu xalbi yu dabbiru ayan tuurisul hikama boo demee kër Cheikh Ibrahima Niass ci réew mi la juddoo di doomi soxna mais lii mu wax nii tey jii imaam Cheikh Baye soo génnee ci réew mi dem Nigéria dem Algérie dem Burkina Faso dem Bénin foofa dem danga fekk jéego yi Cheikh Ibrahima mu gindi fa ay junniy junniy nit yoo xam ne bu ñoom mën naa am sawar a yooyu leen nan ngay mën a amee nag mbooloo mu mel nii dëkk ci sam réew ñu ne woon taala ku ci am benn sam réew jag yow yow nga am ci lu ëpp fukk nga am ci lu am fukk Sénégal dama yaakaar ne li ñu am mas sama dégg Cheikh Anta di wax ne Sénégal day mel ne tax boo xam ne dañ koo def oor ak jamaa ba mu ba muy fees ñu fa benn neefere mbaam teg ci bopp bunt bi boo ci yemee da ngay defee ne faw nga fel ko loolu mat naa bàyyi xel mat naa jàngal daal di wax ne nag ne ci kanam tuuti nag fer am tiit ak fer ay nax dafa jot daal di wax ne nag danañ fer am tiit waaye fer ay nax lu jafe la nee fer am tiit Sénégal gépp def nañ ko bu njëkk nee na benn police genre benn alkaati tubaab rek moo daan génn dëkk bépp daw waaye léegi ñi waxuma la tubaab waaye gouverneur yeeg ministère yeeg alkaati yeeg ñëpp ay jaxasoog ñoom ku ci wax lu wut noonu nga ne ko du noonu. nee na kon fer nañu am tiit nee na fer ay nax nag mooy làkk wi ñuy làkk te muy làkk tubaab bi mm-hmm. daal wax na la ñuy wax ci assemblée ba. di ko làkk di ko tudde ay luwaa ak nangam nangam suñu leen ko firiloon ci ay olof ay yat ngeen ne war fekk leen nit dafa war a fer ay nax moo taxoon sëñ bi ne walaysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suul fahmi nit ki wërta xeeb boppam en tant que der bu ñuul léegi nag damay ñëw balaa sëñ Moustapha Diop xam naa ne dafa ne ci ay xat-xat seen imam Cheikh Baye di dellusiwaat ak fin jëm dëgg bala ñuy tupp taab bi mm. danga tudd ci wàllu économique li événement réligier yi di def ci wàllu économie bu Sénégal génnal màggalu Touba un mois la boo xamante ni bii lépp Sénégal ci wàllu économie mi ngi dox màggalu tubaa buy génn rek treize jours rek gàmmu Tiwaawan dugg na semaine wala deux semaine trois semaine ñëpp a nga Tiwaawan lépp yi continuer di dox noonu lay continuer dugg Njaasaan noonu lay continuer dugg Cenaba noonu lay continuer ba ci ziare général yi yi Omar yéen yi amal ziare général yi waa kër Cheikh Ibrahima Niass di am noonu lay continuer ca gàmmu ya gàmmu yooyu am Kaolack nga xeet loolu nga xam daanaka douze mois yi trois cent soixante cinq jours yi duñ ci amal ñetti fan yu ñu jàll ca benn activité religieuse ñëw na boo ñëwut boo xam ne lu gàtt gàtt dana dugal un milliard ci économie bu Sénégal dama bëggoon ñu ñëw ci accès boobu laata ñuy jàll. ok sëñ Fallou jërëjëf xam naa sang bi macha allah. Mm. Eh, sëñ Seydina kaddu yi rafet na xam-xame na. shukran jërëjëf. Eh, li nga doon wax daa mel dama koo junjoon ne benn bu ne daa doyoon tem mm. yaa ngi tudd sax événement religieux yi. waaye am na lu ko jiitu am na yoo xam ne ñoo gën a permanent. Mm-hmm. mooy Sénégal koom-koomam mi ngi baasewu ci mbay. Mm-hmm. Mm-hmm. tey boo jëlee réew mi ñi fiy bay. Mm. danga leen di delloo ci. nit yi diine yi koom koomu mbay mi mhm. bi ci des li ñuy tuddee ber ab dëkk sanc waaw sanc dëkk fi mu ne dëkk bu tubaab sanc boo koy wër ci réew mii danga sonn lool ministre te xam nga lu taxoon ñu ber dëkk bi mooy mooy ñett yi ëppaloon solo doomu aadama buy dund mhm. mooy fexe ba nit ki sàmm ngoram mhm. sàmm boppam sàmm diineem léegi nag comme ñett yooyu ñoo taxoon ñuy sos ñett yi boo nee dama ko bëgg a soseb dëkk dëkk sos mooy li gën a metti ci lépp lu ñuy def loo gis nit di ko jariñoo rek am na ko ne ca nga ku ca sonnoon lool jëriñëw ca ba tey daara ji ma sanc ni ñaari néeg dong laa fa def yooyu baraat waaye li ma daj ah <laughs> ko defi dëkk daf koy tool moo tax booy tudd wàllu économie gën naa profon lool fi ne boo gisee li tax euh, koom-koomu réew mi tey ñi ci ëpp doole boo leen dee tudd da ngay delluwaat ci waa tasawuf dangay delluwaat ci seeni kilifa te loolu loolu dafay sax ba fi tubaab ba bi fi tubaab yi nekk. da ngay jël ay maam Cheikh Anta ak ñooñu. waaw daanaka li ëppoon ci koom-koom réew mi seen loxo la nekkoon. ndax dañoo jàngoon ay tubaab. déedéet ah lan moo lan moo defoon ci ñoom intelligence bi ñu amul du woon ja du làkki tubaab mooy li nga wax léegi. <laughs> dama wax ne bokk na ci li trompé réew mi biñ commencé. diine ji ab jànkatu tubaab bëgg ko interpréter ci ay calcul yu ma xamul di boole ay chiffres. gis nga yooyu bi ñu ko tàmbalee nga commencé gis dérapage yu bëri di am. Mm-hmm. ndax mag ñi mënoon nañoo dégg tubaab nam leen neexee. wallaahi mais lu tax ñu teg foofu yooyu. Mm. léegi nag dañoo commencé ñun ñun ñooy bëgg a tooñ suñu bopp ci bëgg a xajal ñooñu jànge beneen culture. Mm. ñu ñëw jël culture boobu ne dañ koy interpréter texte yii mag ñi tëraloon. te bokkuñu. te soree nañ. ndax ndax làkk yi dañoo maanaam làkk yi. xalaatin yaf ciy feeñ. surtout làkk woo xam ne sax lëlu lëluwul ci ngëm-ngëm. xam nga tey boo nee làngu arab da nga naan ñun li ñu boole ak moom mooy ngëm-ngëm. bu dutoon ngëm-ngëm arab du tus. yam waaye da koy tane sax bu boobaa. dëgg la bu boobaa sax daf koy tane. mais moo tax gis nga mag ñi ak li ñu doon dégg dégg arab gis nga su fekkee nga fenn fu ñu naan lay nettali histoire naan sëñ bi da doon làkkanteeg naar ba ay xarab. déedéet buy wax ci làkku nationalam bii lay waxee. sëñ Abdoulaye mayuma la doguma la sëñ laa dafa am ku ñëw ci moom di ko làkk ay arab yoo xam ne uh-huh. ba noppi sëñ Abdoulaye daal di koy tontu kii wolof. Uh-huh. ko ndax da ngaa déggul arab mu ne ko firi luñ ma li nga wax be kon dégg naa ko. Mhm. firi luñ ma li firi luñ ma ko waaw xam naa li nga wax. waaye nag damaa ragal ne lu waaye bari xam-xam ba ñëw jàkkaarloog sëñ Tuubaa yi doog ko jaay. Mhm. ndax moom ma ko dégg gën a dégg foog la moo tax kon wàllu koom-koom bu ñu koy tudd ci kii bi dañuy maam événement yi lu ciy gaar la moom. Mhm. mais jëmmi koom-koom bi sax nga xamante ne dañ cee teg loxo. loolu biñ ci loxo yi njabootu tasawuf. dëgg la tey jii boo boo génn woon li nit yi tasawuf ak nit yi daara téye ci ndax bu ñu nit daaree day dellu ci nit tasawuf ndax ñoo formé ñooñu boo génne woon li ñu am ci réew mi réew mi def yaramu neen dëgg la kon wàllu économique loolu moom waxaale wuñ ko même boo jëlee ci wàllu politique tey ñi ñi ci gën a ñi ci ñi ci am ci ñoom yaakaar di leen tudd ba léegi mooy ñi nga xamante ne daara laal na leen tudd nga léegi Cheikh Anta ñi daara laala ko néew luñ luñ am am ci culture tubaab ba la leen daara laale lañ leen di nawee wallaahi mooy dox ba fii ñu toll nii dëgg la léegi loolu nag bu fekkente ne dañu fa am kenn benn waaye bu bari xam-xamam bëgg a dikk ignorer loolu moom ci boppam moom mooy njëkk yëg ne moom am na problème waaw waaw ndax dafay dafay dafay dem ba yàgg mu perte xobbiya li ñuy tudde ak ak mbëggeel wala wuddiya sax mën naa koo tudde noonu <laughs> ak cofeel day dem ba perte ko bu ko nit nag bu xësee ba perte yooyu dootul wax jàmm déedéet léegi nag fitna jooju muy wax day dem ba wër ko boo gisee sëriñ bi di wax naan xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna ma raamu wala albaaba mm-hmm. kan lay waxal xoli xoli xol yi pourtant waxul nit déedéet waaye daf ne xol yi ma bëggut yi nga xam ne dañ ma dencal rek ak ak noonu mm-hmm. ci njàqare la ñuy wéy parce que lu tax bis bu seen ñuy gis sama traa nga yokk may gën a kawe di gën a yaatu ku boobaa ala wajarin sëñ bi da ko waxaale ba noppi nag ñi bokkaloon jiw bépp yu laa xuuna maa raamu gis nga li ñuy sàkku ci man pour jéem a nërmeel mm. duñ mas a dajeeg moom walal baabata yàlla du doon ubbil bunti xéewal gis nga nga xam ne kon wàllu euh, boo demee koom-koom da tudd rek tey affaire koom-koom nga tudd màggal yi yooyu damay wax ne yu gaar la mm-hmm. annuellement la yee léeg-léeg benn bu ci nekk day dikk annuellement mais dama ne la bis bu set ak waxtu wu nekk koom-koom bi réew mi doxe boo ci roccee li ci waa tasawuf am dama ne réew mi def yaramu ne eh, Imaam Cheikh Baye maa ngi lay xaaraat ci téléphone bi 943 48 28 yaakaar naa ne fi ñu toll am na solo lool eh, laata muy ñëw sëñ waaw <laughs> comme am solo mooy at tarbiyatu ad diiniya <laughs> eh, mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci senegal ñi leen di joxañ wala nit ñi sopp leen daara laal ji mu leen laal moo tax ba ci politique yi ñu xam bu ma tuddee bu fekkee mën nañ maa may ma tudd kenn ba ci ñiy politique rek ci réew mi ku mel ne Ousmane Sonko jàpp naa ne nit ñi bëgg gi nga ko bëgg ak topp gi nga ko topp lim laal daara lu loo xam nekk ci daara moo tax mooy ak tarbiyatu ak diiniya gi nekk ci moom ak tarbiyatul islaamiya képp loolu faw bu nekk ci yow njot naa danga nga jub man jot naa la da ku ku jub ngay doon kon comme li mu wax nii nitu daar wut am complexe réew mi waroon nañoo dem ba niti daar yi jiite ko ci buñ ko jiite woon ca jot naa ne ci lay gën a tego ci yoon ci lay gën a jubee ndax it nit ki la nga nar a def boo naree luubal am na lu la yàlla wax soo naree sàcc am na lu la yàlla wax li nga nar a lépp am na loo xam ne yaa ngi am masuliya bu rëy rëy la amaam Allah kooku soo ko dee bàyyi xel foofu nga da ku jub ngay doon ca it da nga xam li nga jiite mooy lan waaye koo xam ne tey masalan nasaraan rek nga jàng yow xam yaruñu la ci yarub diine yow xamoo lu dagan xamoo lu laab xamoo lu loo xam ne war nga ko def ak loo wërta def ak lii lu ci boo ko defee lu la ci yàlla di fekk ba ci bakkan yoo xam ne mën nañuy dee yu bëree bëri yow doo ko yëgal sa yaram ca xam nga ne ëllëg bi ay zen bin xutilat question boobu yàlla mën la ko mën lu ko posé comme euh, defee daara yooyu nga xam ne tey masalan sanc sanc bu dëkk daf fay tool ak yi demee noonu kooku boo jékki-jékki bëgg am ab nooneel ci moom doo xam foo koy teg ndax sëñ wax lu xoromu dama koy wax lu xoromu waaye dafa wax ne alamu man xasada nii laa yan sarim wa bisru man yuxibu nii laa yan xarim maanaam bu fekkee danga maa kii maanaam saw mettitu xol du dog mukk waaye soo bëggee sa bëtti moom du dag mukk <laughs> asalaamaaleykum ah, wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa sëñ Fall ñu ngi lay ziar bu baax. waaw kooku. man la docteur Moustapha Diop. Eh, docteur Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziar bu baax si la. ñoo ngi lay li ci xat-xat yi ñu la fekk. déedéet am solo. ñu ngi doon waxtaan wi. waaw. léegi balaa ñoo tàmbali rek. di nuyu suñu mbokk yi fekk. te ñu def ay développement yoo xam ne am na solo lool di comme ko ne ñu ne jut rek ni ñu ko waxee rek maanaam di siyaare euh, soxna waalo moom moom si jógee di ko siyaare mboo mbooleem di ko siyaare waa kër suñu saadi di ko siyaare sama xarit yi nga xamante ne sama xarit yi bopp lañ muy seen ji di kebe seen euh, soin kebe ak seen méthode ak kebe yal a kawe. allahumma amin bu loolu jàllee yi ko topp man na xam naa wet may jëlee. Hmm. mooy koo xamante ne dafay topp histoire Sénégal. Hmm. di topp géographie Sénégal. Hmm. wet googu laa koy jëlee. li tax ma koy jëlee wet googu. mooy bu dee wàllu diine bi moom. ñu nekk ci plateau bi doy nañ tëkk hmm. ndax euh, seen xam-xam mate ko seen seen xarañ mate hmm. léegi nag Sénégal moom dafa bindoo noo xam maanaam dëkk bi dañ koo mooñaale ak kasowu ndax bi tubaab yi nekkee même rapport yi doon am ak ak nit diine yi bi tarixe yi organisé woo moo tax yu bëri mën a nekk kon donc nit tasawuf yi nekk Sénégal tey jii ni Sénégal buñ ko doon buñ ko doon séddale ñoom ñooy jël part bi gën a am def hmm. moo tax nit ñi le fait que ñu tënk ci ñoom loolu du hasard histoire la hmm. loolu nag li tax mu nekk histoire mooy boo jëlee lu mel ni Jolof Njàmbur Kajoor Bawol bi si buur yi jógee nga xam ni crise société wolof mi ngi tàmbalee daanaka ca njaayum jàmm li ñuy dox di dox di dox ba nga xam ne ci tubaab yi ñëwee ak buur yi xeex ñu doon xeex seen biir ak buur yi ñu doon xeex si léegi bi tubaab yi ñëwee dañoo mën dañoo gën a doggali société wolof léegi nag force yi nga xamante ne ñoo fi ñoo taxaw indiwaat diine yaraat nit ñi tarixa yi mhm. kon ñoom moment bi ñëw ci histoire Sénégal mooy moment boo xamante daana daanaka société bi nit ñi jaaxle woon nañu amuñu woon jëmukaay nooteel bi amoon doole léegi force bi desoon rek mooy nitu diine yi boo gisee sëñ Touba taxawaayam boo gisee maam El Hadj Malick wala maam Abdoulaye Niass mën ngaa topp daal ñoom ñëpp xam ni maanaam force l'islam dund bi mu dundaat yaatal bu ko yaatal mbindeef ci su tasawuf ñoo ko liggéey loolu nag mooy dox ba yëg si nga xam ni loolu li mu leen may mooy am na ko wax ci plateau bi mooy samp yi ñu samp ay dëkk nga xam ne tubaab bi boobu euh, commune yi moo leen moo leen moo leen amal waaye nit ci diine yi dañuy samp dañu dañu dem ci àll yi maanaam sanc nga xam ne Sëñ Tuubaa stratégie bi mu jëloon boo demee ci El Hadj Malick beneen beneen stratégie la boo demee ci Mame lay Niass beneen stratégie la jël mais Sëñ Tuubaa stratégie yi ñu jëloon mooy sanc ay dëkk dëkk yooyu nag boo xoolee Touba dafa nekk ci digg nga xam ne Sëñ Saal sanc na Ndindi Sëñ Maodo Souma sanc Sindi Sindoodi ñu sanc Daaru Karim noonu nga koy toppee ba sanc Mouride ba front pionnier bi nekk biir Saalum bu génn yooyu yëpp ay sant sëriñ la loolu nag pour récupérer nit ñi sécuriser leen ba pare nag ñu nekk force boo xamante ne mën nañoo bindal diine tax tarixa yi bi ñu ci histoire Sénégal muy waane boo xamante ne force bu organisée la bu dynamique boo xamante ne mën naa taxawal lii ñu taxawal Sénégal moo tax jeexital bi di ñu am ci Sénégal du loo xamante ne dafa xëy rek am loolu histoire moo ko tëral gëm yi nit ñi nit ñi yi loolu dañ koo mooñaale ak histoire Sénégal hmm. moo tax eh, da ngay gis république bi taxaw nii nit ñi sëriñ si taxaw nii bu sëriñ si woote woon nit ñi sëriñ si lañ jëm kon donc relation bi ñoom force lañ bu nekk ci Sénégal organisé wu depuis jamono tubaab ya même bi ñu amee indépendance tamit président yeeg régime yi jaar yëpp comprendre leen loolu kon donc loolu force boobu ni mu amee ay dëkk organiser nit ñi ñu tasaaroo loolu su ko bëggoon jëlee ci réew mi maanaam réew mi dara du fi def kon loolu bu man loolu rek laay duggee sëñ Fallou ci wàllu analyse bi di xaaraat euh, euh, euh, kàddu bi dem ci man sëñ Moussa waaw waaw bala ngay génn waaw def gis naa analyse bu am solo bi nga def ma ne yëg naa analyse bu am solo bi nga def waaw dégg nga li eh, sëñ Saliou Baal ak sëñ Seydina Diop andi. Mhm. ba ci imam Cheikh Baye fële ca Kaolack kër Cheikh eh, Cheikh Abdoulaye Niass. mais fiñ fi nga xam ne fi leen jëm directement nii damay damay laaj ci réew mi. Mhm. li nga xam ne moom la tarixa yi am nga xam ne ci wàllu économie buñ téye seen loxo réew mi yëg ko ci wàllu politique buñ téye seen loxo réew mi yëg ko naka lañ mën a gise koo xam ne day yëkkati ay kàddu di wax ne maanaam tariixa yooyu tariixa yooyu maanaam man lañ leen a jàppe sax ay ay ay ay sàcckati xaalis ndax vidéo bi ma jàkkaar lool ki ko wax dafa wax ne branchement d'argent yi ñu ngi koy defee ci weeru muharam ba ci weeru gàmm daal di wax ne bala may guddal damay bëgg rek sëriñ Abibou Thiam moo ne ci wàllu machine bi mu tegal ñu vidéo bi ndax am réew bu fekkente ne bii dañoo woote woo jàmm nguur gu bees ga fa nekk sëñ sëñ Seydina tudd na ko di tuddoo diine ba kilifay diine yi sax jàpp ne ay nit yi diine lañ yoo xam ne alhamdulilahi rabbil alamina suñ amee alaaqa bu war a dox seen diggante kilifay diine yi lañ war a soxla ci ñoom buñ ko dénkee koo xam ne daa jàpp ne ñooña dañuy def branchement d'argent ndax ñoom seen àq jooju daan ca mën a jot wala duñ ca mën a jot kon sëñ Abibou Thiam bu jàppandee nga ñëw ñun ci déclaration bi laaj ci ñu ciy ñëw sëñ Moustapha blanchiment d' argent. bi ñuy def fii Sénégal loolu. lu ci ëpp ci blanchiment d' boobu. voilà ñuy woowee ay sëriñ koy hmm? mu ngi am diggante début d' année maanaam diggante. da ko war ndax li tax war ko occupé mooy bu doon ci dañuy natt nit ci wàllu xarañ ak diplôme foofu du fa nekk ndax koo xamante ne sañ toog mais am naa juróomi doctorat. sëñ bi dafa ne son leerul. sëñ bu Thiam waaw foofu rek laa bëggoon ñu ñëw sëñ Moussa. waaw léegi léegi léegi li ma loolu li ma ci dolli mooy dama ne. waaw ki nga xamante ne moo wax wax jooju. waaw. poste bi mu occupé. waaw bu doon ci réew mu bu bu tege la. moom du occupé poste boobu. Mhm. moom dañ koy disqualifié. beneen bi ci def li mu wax maanaam boo déggee loolu ne ay milliards la xam nga milliards boo ko bëggee def trans euh, blanchiment d' argent. processus bi ñu expliqué loolu ko am xel danga xam ne mënta nekk kon donc ñaar yooyu rek boo ci tënkoo gouvernement bi nga xamante ne nit ñi dañoo am ci moom yaakaar war naa doxale si diggante bi ak tarixa yi nit ñoo xamante ne ñu diñ confiance lañ ak nit ñoo xamante ne bañ gisee tarixa yi gis gis bu rafet xam nga kuy kuy wax ni tarixa yi léegi ñu jeex am na vidéo boo xamante ne dafa wax ni tarixa yi léegi ñu jeex Sénégal loolu mooy koo xamante ne mënoo lire histoire xamoo histoire du muy évoluer yow da ngay toog rek di wax say xalaat yoo xamante ne boo ko natt ci wàllu xam-xam taxawul tarixa yi tey la gën a dëgër Sénégal sénégalais yi tey ñu gën a gëm te événement bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu génn muy màggal Tuba wane na ko kon donc loo xamante ne dafa nekk ci ci luy jeex du mobiliser autant de monde kon donc loolu kooku waxam yi ñuy wax gouvernement bi man sama gis-gisu bopp ñoo war a jël ay mesures ci moom mesures yoo xamante ne duñ ko doxalee sa digganteeg tarixa yi parce que dégg nañ li mu wax ci tarixa yi surtout particulièrement yoonu murit hmm. kon man loolu laa ci bëggoon a sànni rek seen sàll. waaw jërëjëf sëñ Moussa da ngeen jël si. Euh, blanchiment d' argent bi ñuy def fii Sénégal li ci ëpp ci blanchiment d' argent boobu. ñuy hmm. woowee ay sëriñ ñoo koy def. Hmm. mu ngi am diggante début d'année diggante. muharram weeru tamxarit ba diggante après gàmmu événement religieux yi fa am yëpp màggal ak gàmmoo yi yëpp ay occasion yi xam ne on ne plus l' argent ñu ngi koy joxe ndax nit ki suñuy taxaw dañ maa dama dayee samay addiye samay addiye deux milliards la kenn mënu ko kenn mënu ko tere ni koy dajale naa samay addiye un milliard cinq cent vraiment amul kenn mënu ko justifier xaalis koo ko jëlee mënoo wax dama koy liggéeyal naa par rapport rek temps normal nga xam ne tu es ko jël jamono événement religieux yooyu ay ziar ak ay màggal ak gàmm. jamono bi nga xam ne trafiquant yu bëri te ñu si bëri nañu ay nekk si dëkku tubaab bi ay Italie ak yeneen dëkk yu bëri ay taalib lañ. Mhm. bëgg jox mu mel comme addi la nga dugg sa compte xam nañ fay sëñ yi ne dañuy fay koy 10 pour cent ba 20 pour cent. Ah. te ay am leen topp am mbooloo bu bëri nag seen ginnaaw te ay sàcc lañ. kii daal. macha allah num num naxe wala nu mu jërëjëf sëñ Abibou Thiam euh, imaam Cheikh Baye ñu ngi koy xaar ci téléphone bi laata sëñ Moustapha di ñëwaat sëñ Sall dégg nga kàddu yi. xam naa yàgg na mais mais li tax wax ji. Mhm. mën naa cee jàngat. Mhm. Mhm. ko mënee tënk ci wolof mu jaarut yoon. ba mënoo koo jaarale ci benn banque nga bëgg a war a justifier alal jooju fi nga ko jëlee ndax am na xaalis bu bari boo xam ne boo ko bëggoon a ci benn banque danañ la laaj foo ko jëlee xëy na bu dee kuy jaay drogue la wala kuy def nàngam eh, mënta mënul wax loolu parce que loolu daganul ci ni ñuy doxee kon su boobaa bu bëggee jël alal jooju lewal ko war naa am bunt bu mu ko awale pour mën a justifier léegi moom mu wax ne kon ci li ma li ma déglu fii moom mu alal am na ñoo xamante ne dañuy jël alal jooju lewut dem yët ko sëriñ addiya ne ko am nga ci nangam waaye da présenté ko ci banque bi rek waree ne sax addiya la defee waaw bu ko defee sëriñ bi moom bu jëlee commission la ca des moom mu delloo ko waaja hmm. kon daanaka sëñ boobu ab dealer la wala sax ab trafiquant comme noonu la ko jiiñ <laughs> léegi waaw bu fekkee bàyyi naa xel ci loolu léegi nag lii lii na mën dama bu mu seetaan mosuma am koy soog a déglu tey. am koy soog a déglu waaye lii bu fekkente ne lu deme nii am na. foofa euh, procureur moo waroon a auto-saisiru ndaxte comme réew mi dañ fiy bañ blanchissement d'argent laaj ko ñooñu mu wax ñan lañ. dëgg la nag. parce que am na milliards yoo xam ne buñ ñu nee jaareen nañ ko ci ay kilifa diine. wala ñuy tuddoo diine. te xam espace diggante bi muy amee. ak blanchissement d'argent ni mu grave ak ni mu mën a yàqee am réew. Mm-hmm. ni mu mën a daanee économique mu xam. Mm-hmm. ñu wëlbatikuwaat jiiñ ko ak nit. Mm-hmm. loolu procureur waroon naa autosaisiru laaj ko moom lii fu jëm moo tax damay wax ne xaw ma ban jamono la ko wax. waaye jamono boobu moom procureur ba fa woon wàcc na aw yoon bu baax. léegi nag comme askanal la ne ko ci tariixa kooku kooku mënatula nekk. bu fekkente ne waa tarixa ba dem nañ ba contesté loolu bu fekkoon avoué nañ ñoom nangu nag ne ñoom ñoo ko def loolu boobaa du ko tee jiitu parce que dafa dénoncé lu ñaaw waaye comme waa tarixa ba contesté nañ loolu te lii ku ne xam ne des ko contesté amu ci tarixa ma su boobaa kook kon mënatut nekk benn wisaata wala mu nekk kuy dox diggante tarixa ak keneen waxuma la tarixa ak état loolu nag damaa defe ne xëy na kon bu fekkee man nag ba léegi it li ma kiwul mooy xaw ma ban rôle la occupé ci ci état bi waaw ci état bi waaye. de toute façon bu fekkee xam nga xam nga boo xamul rôle bi. ci màggal gi rek. li muy wax nii. misaal mi feeñ na ci màggal am na lettre bu génn ci màggal gi. Hmm. boo xam ne moom nee nañ moo ko bind. lettre bi gis nañ ci signature am bi bind nañ ko wala binduñu ko sëñ seexu naa mu alaaji baare génn na moo ko bind te daana ko bind. Hmm. mais liy tegtale loolu rek mooy moom lam ci dugg woon da koo gàntu automatiquement. waaw man de man de sëñ bi xam naa kàddu yi ma dégg daal soo soge na ma. waaw soge nañu man kàddu bi ma di yi ma déglu nii maa ngi koy soog a déglu <laughs> <laughs> kàddu yi moom. Mm-hmm. naa lijjanti ca ko waxee. Mm-hmm. ci loolu rôle mm-hmm. fekkee dafa dafa dafa dafa déci dafa joxoñ baaraam it. matoon naa topp ba mu sës. waaw mais li kenn maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziaraat baax di ziaraat gan ñu tedd yooyu nekk ci plateau ak ñu dugg par mm-hmm. téléphone. Mm-hmm. macha allah. imaam dégg nga kàddu yi Cheikh Moustapha Diop yëkkati. Mm-hmm. déggaat ngay sa gaa yi fi jaar dégg itam kàddu yi nga xam ne moom lañu teg léegi nii. waaw moom lañ teg léegi dégg naa ko. waaw di ndokkeel euh, mbokk yi duggoon. muy Serigne Saliou Baal ak sëñ Seydina Diop ak seen Moustapha Diop. ci leeral yi nga xam ne def nañ ko ci jàngale li nga xam ne mooy tasawuf jàngale it li nga xam ne it mooy xaddu taarif bépp wane li nga xam ne it mooy samra bi muy meññit wi wane it rôle wi nga xam ne it suñu mag ñi moom lañu ñu ci jàngale ak ci xamle ak fexe tabax mujtama boo xam ne mujtama salim la daal di tabaxit jullit bi nga xam ne moom la yonent bi salaa salaam waxoon ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa ba léegi ci biir foofu it ma kontaan bu baax ci leeral yi mbokk moomu nga xam ne def na ko ci xaddu taarif bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim bi Rasul jàngale ci lan mooy li nga xam ne mooy tasawuf ma kontaan ni ci taaliq bi nga xam ne sëñ Galas def nga ko ci euh, mag ñi nekk bi nga xam ne nekk nañ ko benn ak ñun ñi nga xam ne tey ñooy ndaw yi ànd bi nga xam ne war nañ ko àndoo mu nekk luy dëggal dëgg-dëggi àndoo mag ña ca démb mm-hmm. boo xoolee Cheikh ba Niass téeréem bi mu njëkk a taalif muy ruuxul adab mm-hmm. ca njëlbeenu téere ba rek ba mu tàmbalee di jàngale lan mooy teggiin Mm-hmm. kon da ngay gis ne tasawuf moom lay jàngale mm-hmm. di wane yenn yi nga xamante ni moom la taalibe war a mel bam tàmbalee lan la wax qad qaala fi hada al majalil am jadu mm-hmm. xadimu taaha al malikiyu ahmadu wa laysa yaksibu sawaad al jismi wa laysa yusiru sawaad al jismi baladat al fata wa suu al fahmi <laughs> kon di nga gis ne Cheikh Ibrahima Niass mu ngi dédicacé ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mm-hmm. ci wax ji nga xam ne wax na ko ne nekk nit ku ñuul mm-hmm. nekk gi nga nekk nit ku ñuul mm-hmm. warta tax ne ñu ne yow nit ku matadi xel nga wala nit ku mënta comprendre sa tax nga nekk complexe kon gis nga jàngale yooyu nga xam ne jàngale nañ ko te xam ne Cheikh Ibrahima Niass muy iqtibaas di indi waxu Cheikh Ahmadou Bamba di la woon ne la ñoom mag ñi seen yoon yëpp benn la woon rek waaye yoon yi jëm ci yàlla moo wuutee hmm. waaye ñoom seen maqsad benn la li waa ji waxoon muy ibaratuna shatta wa maanaaka waxidun fa kullun ila zaaka al kamali yushiru hmm. yow yàlla yoon yi moo wuutee hmm. waaye sa maanaa benn la léegi nag tey jii nii bennoo bi nga xam ne war nañ ko def ci këri diine yi wax nga ko sànq nga ne mm-hmm. socialiste yi ànd nañ mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekk nangam ànd nañ maanaam kuréelu politique yëpp ànd nañ mm-hmm. bandi yi sax ñoom dañoo ànd dëgg la tuxkat yi sax da gis ñu yor benn mais ku ne taaral sa morom te pourtant ci liñ nekk du lu baax pourquoi pas ñun ñu war a àndoo gën a nekk benn ci dëggal ixtisaamu bi xablillahi bi alquran sante noonu léegi nag kàddu yi nga xam ne mbokk mi wax na ko nga xam ne teg nga ko léegi muy Cheikh Omar Diagne mm-hmm. xëy na man dinaa nekk ku mieux placé pour mën cee wax parce que day wax ne Medina bàyyi la bokk. waaw la wax nee na. muy kàddu yoo xam ne kàddu yu ñagas la kàddu yu manqué xorma la kàddu yu manqué xam-xam la kàddu yu jaamu yàlla bu doxoot la mm-hmm. kàddu gi nit la koo xam ne nit ku suufi la te it du yoonu njëkk muy wax kàddu yu mel nii ba li xew ci lettre bi nga xam ne xew na ci màggal gi mm-hmm. wax na fi ne diggante muharram ba li nga xam ne mooy rabiul awal maanaam safar gi ba ci rabiul awal gi mu ne branchement d'argent yu bëri ci mm-hmm. moment boobu lay xew mm-hmm. maanaam ci màggal gi ak ci gàmmu gi te loolu jamono bi mu ko waxee woon ci jamono nguuri Macky sàll la waroon nañ koo woo boobu ci loolu buñ ko ci woowu tamit wax jooju mu waxoon dem bay wax ne tariqa dana jeex dem bay wax ne tariqa dafa démodé te billaahi li mu wax du dëgg cheikh Mouhamadou Nawi fii ba muy wax ci tariqa tijaan hmm. taduumu wa tabqaa maa duhurin tawilatin wa fi axiri zamani taati bi faydatin fa yaxuduha alwara afaawija garbatin lima shahadu min lawaiha waslatin yoon yi dafay sax mm-hmm. parce que alxuraan moo na suñ tarixa yi dafay sax fan la ko wax wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkusu fi l luy jëriñ doomu aadama yi daf fi sax di fi doon di fi nekk mm-hmm. léegi nag yi nga xam ne waxoon na ko beneen tariqa dafa war a jeex demoon na ba benn jamoon sax mu mel ni luy comparé tarixa yi naan man tijaan laa yéen seen amul li yéen murid nangam nga xam ci rek nga xam ne élément la buy yónni pour muy ruubee ci diggante tarixa yi waaye fa muy woote woon sax fa la bokk mi bind bàyyi bokkut fa parce que doo ko fa gis allahu akbar buñ du toxe bu ñuy dajale taalibe yi doo ñëw hmm. boo ko laajoon kañ la sa tànt bi dem mi dina bàyyi kañ la hmm. kooku est-ce que danañ ko boole suñ mag ñi li ñu jàngale mooy man istaxdam naahu xaddam naahu hmm. ku ñu liggéey loo jiite la mais koo xam ne bu ñu laajtee xidma doo ñëw te ñun Cheikh Ibrahim ñett la ñu wax nañ ci àndee mooy lan dawaamul xidma saxoo xidma bu ñu laajtee nga joxe sa jëmm joxe salbul iraada sànni sa mbëggeel bëgg li sëñ bi bëgg kamaalu itiqaad am pas-pas bu mat ci sëñ bi teew li yëpp gisuñ ko ci yow kooku nag bu ñëwee taxaw ne tarixa dafay jeex bu ñëwee taxaw ne yoonu murit yoonu nangam la wax lu ñaaw wan ne événement màggale gàmmuñ ci la ñuy blanchir argent ak ziare kooku tey jii waruñ ko woon a jox poste directeur des moyens généraux mu nekk ca biir pale di jëflanteeg tarixa yi directement loolu erreur bu rëy la boo xam ne ñu ngi koy contesté te it lii nga xam ne xew na ci màggal gii ay ganu Cheikh Ahmadou Bamba ay suites yu ñu leen di jox ak chambre yu leen jox loolu yoonu murit am na ko di. am na ko mos. waaye teranga la guñ delloo ci état bi pour sagalee leen ko mhm. waaye nit boo xamul teranga mënoo koo joxe. déedéet yoonu murit ñaata milliardaire ñaata kilifa yoo xamante ne dalal ay ganu Serigne taxaam mën nañ ko mais depuis deux mille neuf ci xibaar yi ma dégg mu ngi ne ci la état yu Sénégal tàmbali woon di ko def di dalal gani ñi nga xam ne ñooy sëriñ bi fële ca King Fahd léegi nag tey jaamu yàlla bi bu ñëwee rejeté loolu te pourtant yoonu murit Serigne bi rek mën naa dalal ay ganam waaye màggal gi nekk événement boo xam ne sëriñ benn nañ ko santle yàlla te man laa yashkuru naasa laa yashkuru llaha te nag ida afaadaka insanun bi faidatin min al ulumi falaazim shukrahu abada wa qul jazaahu llahu sa fulanan jazaahu llahu saalihatan afaadaniha walqil kibra wal xasada mag ñi même bu dul dara li ñuy contribuer ci année bi ci dëkk bi hmm. ci xam-xam ak li mbokk moom wax mu ne liy xew ci wàllu économie ci màggalee gàmm yi sax mu ne paari la luy xaw yenn saay waaye li ñuy def nga xam ne toujours dafay xew xanaa ñooñu jaadu na kat bu la mag ñi joxee teraanga ne la màggal gi kat bëgg nañ ngay dalal gani sëñ bi dañ la koo teeralee pour bëgg nga participer ci tiyaa bàyyi sant yàlla ki moom Cheikh Omar Cheikh Omar Diagne mu gàntal lii man de gëw ma ne président de la république bi moo ko digal. déedéet gëw ma ne it ab premier ministre dana ko digal. bu dee ñoo ko digal wala mu def ko ci seen ndigal it def nañ erreur ñoom ñëpp woo xam ne it nag. ñu ngi ñaan yàlla beneen yoon wala nu mu gën a gaawee nañ dem ñu jéem a tabax loolu wala corriger waat loolu wala defaraat loolu wala moom moomu ñu teggi ko ci palaasam mbaa nag ñu teg ko ci yoon xamal ko yan tànk la war a doxee. macha allah parce que ku ne xam na ne pouvoir religieux dafa yàgg di ànd ak pouvoir temporaire waaye nag ci ànd naw la ci ànd rafetal ci ànd dimbalante ci ànd defalante. Hmm. ancien sëriñ doo ko dégg ba àdduna tukki. waaye ancien chef de l'état da nga ko dégg. dëgg la te pourtant sëriñ si nit ñee cuubu nit ñee changé waaye ñoom fañ toogoon démb ba léegi fa lañ nekk. wallaahi. ni fa président de république bii di demee premier ministre dafa demee loolu la fa président yi fi jógee woon doon demee ñu naan leen da ngeen doon complot sëriñ si da ngeen doon complot président yi pourquoi tey duñ leen ko wax. te sëriñ si ñoom loolu du seen rôle. ñoom seen rôle du wax nit ñi defee leen nangam nangam ci yoonu politique waaye defar nit ñi ci yoonu yàlla moo leen tax a jóg. yonent bi sallallahu alayhi wa li mu jàngale sax ñun alaykum bis sam'i wa taa wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun kon sëy si ñoom amuñ droit sax di xeex li nga xam ne mooy nguuri moo xam yi weesu la moo xam yi fi toog tay la nag nguur bu ñuy fal nañ fal ay nit ñoo xamante ni duñ ay rancunier di meranteeg sëriñ di defanteeg ay tarika di defanteeg ay kër di nekk ñoo xam ne bu bu ñu sàggalee sax ñu jaxase ñu jaxase këri diina yi di wane ne Medina la bàyyi laa bokk wala ak tijaan laa taxaw di xarab yoonu murit billaay doo taaliba bàyyi doo taaliba Cheikhu Tidiane yi parce que man ñoom ñëpp benn yoon la ñoom ñëpp benn yoon la léegi nag lii ak yu mel nii li koy dindi mooy nag mooy bennoo boo xam ne wala kuréel boo xam ne wala àndoo boo xam ne teg benn lajna teg bureau boo xam ne dañ koy organiser ndaw nekk fa loo xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa moo ko fa teg wala man yaquumu maqaamahu ndaw loo xam ne Cheikh Ababacar Si Mansour moo ko fa teg wala man yaquumu maqaamahu moo ko fa teg ndaw loo xam ne Cheikh Mouhamadul Mahi moo ko teg wala man yaquumu maqaamahu moo ko fa teg noonu Canaba Njaasaan ahlullahi su ñu amee kuréel wu doole noonu nga xam ne ñooñu seen kaddu kaddu xulafa yooyu la. Mm-hmm. ak li fi xamoon bu yàggul ay nit ñoo xam ne dañuy dem jël ay signature ne dañoo bëgg xeex góor jigéen dem nangam dem nax sëriñ si ne leen signé leen lii si signé bi ay élection passé dootul waxat ci waxu góor jigéen parce que lu taxoon ay législatif ay nangam ak nangam léegi nag élément yooyu nga xam ne ay élément yu leen boo demee Touba fekk leen fa boo demee Tivaouane Ndiassane Medina Baye nga xam ne dañuy yàq ci biir kër gi di ruube di yàq jot na nag ñooñu ñu seppi seen ay loxo ci ndabi nag am ay ndaw yoo xam ne sëriñ see leen teg ñu teewal leen ci ay lijaan yoo xamante ni li ñuy kaas mooy lan lu développé seen dëkk maam yi parce que lu tax dafa am ay nit ñoo xam ne ci ñu leen fal leen bokk te ci kër yooyu la aju te dañuy revendiquer seen taxawaay ci kër yooyu. macha allah imam màggal Touba ndax jaadu na ñu dem màggal ñu leen nit ñi dañoo mar naan wala problème mu ndox dafa am Touba jaadu màggal Touba. ndax jaab na ñu dem ñu ne Touba ndox maa ngi fay bëri wala ndax maa ngi fay jàllangoo nangam noonu Tiwaawan noonu nit na léegi nag yooyu nag pour ñu mën koo xeex ñu xam ne dañoo am seen cër am subvention bu wax di dem ci kër yi loolu nag il faut organisation moom moo koy maye ñu nga dëkk bii musiciens yi am nañ seen organisation ñi xaw ñi nga xam ne gëmuñ yàlla sax fan yi gis naa ñu ne am na association des ceddo du Sénégal Mm-hmm. ñu génn di wax ne ñoom it nit ñi dañ leen a fàtte léegi nag bu demee musiciens yi am nañ kuréel parce que démb am na ku ñu lay si réew mi yàlla ko yàlla yërëm feccikat yi génn leen di kaas buñ laalee médecin léegi sax li léegi sax li gën a gaaw lañ xewal benn médecin bu amee problème ak état moo leen médecin yi ne dañuy grève ñu ñu ñu taabal réew ma bu am jàngalekat amee problème ak état mboolem jàngalekat yi génn ne duñ jàngale ñu am ñu plan ñu ñu sonal réew noonu docteur yi noonu ci mairie yi noonu neneen pourquoi pas ñi nga xam ne nag ñooy sunu mag ñii nga xam ne li ëpp doole ci réew ci seen loxo lañ nekk foog organisation boobu noonu daal di am. incha allah faw i'tisaam boobu daal di am. ñu ngi lay dégg. faw boobu noonu daal di am. ñu ngi lay dégg ñu ngi programme yu mel nii. lii nga xamante ne mooy plateau yu mel nii muy continuer di am. du nekk loo xam ne nay bañ di soree parce que lii moo ko mën a régler wala bu ñu mënti gisee groupe bi WhatsApp bi foofu muy taxaw organisé wu bu ñu am sax même réunion benn yoon par weer wala benn yoon par at mhm. ñuy bindante di waxante bi am si awaasirul uxuwa wala mahabba am idil a faatahum talaaqi fala silata bi afdala min kitaabin bu ñu mënta gisante ñuy bindante sax léegi organisation boobu mooy waaw ku mel ni zaawu Cheikh Omar Diagne gii ak zaawu Cheikh Omar Diagne meneen ak meneen ak meneen ak meneen parce que nag xaar nekk waaye dinaa wax rek li imaam al waxoon ne hadihi al hajamat laa tahuzzu shu'ayratan min hadihi al liha cong yi ngeen di cong kër Cheikh Ahmadou Bamba mbaa di ko cong Medina Baye mbaa du yëngal teppuk karaw ci sunu picc sikkin yi wallaahi bu yeboo nañ teel a xamee noonu te xam na nag saaxa bii ak bi di leen ko bàyyee de boo xoolee ci charq mhm. ak ci rarb mhm. démb ba tey mbooleen xeex ci diine islam bu mës a am mhm. suufi yaa ko yoo ko def ba yëcca mujj ku mel ne Omarul Muxtaar ci Libi ba ci mel ni Cheikh Omar al Fuuti yi mën naa caa indi jeex ñaareel bi mooy boo demoon sax ci côté xam-xam lépp lu xew fii ci àdduna bi li gën a réy ci àdduna bi ci borom xam-xam et suuf yànk la dëgg la par exemple rek ma tëj ci lu mel ni qiraatu sabaa muy façon jàng ni ñuy jàngee alquran benn sanad boo xool ci sanadu qiraatu lu dul doo fa gis ab sëriñ boo xam ne ab suuf yànk boo demee Égypte jàngkat yëpp seen marja mu ngi dellu ci kan ci Zakariya Ansari te Zakariya saa na téere bii di risaala al Qushayri ah te kooku ab Sufyaan kan ab Sufyaan kan yooyu il faut ñu ci bàyyi xel jox suufiyanke yi surtout nag sunu mag ñii nga xam ne ñooñu gën a jege te gën a gën a yey xam ne ñoom ñooy eh, kilifa yi dañ leen woo jox seen cër bàyyi la nga tàggatoo jërëjëf kon jërëjëf xaaral ma gàttal maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi maa ngi noté woon seen tur Serigne Saliou Baal mi ubbi. Mm-hmm. ndeysaan mu awee ci beneen domaine wax ci côté économie waxi ci côté waxi Cheikh Ahmadou Bamba macha allah mm-hmm. Serigne Seydina Diop ñoom it ñëw gën a insister ci wàllu texte mm-hmm. macha allah Serigne Moustapha Diop it wax ci côté historique macha allah rafet na sëñ Galas ñu ngi lay ndokkeel. di ndokkeel sëñ Fallou Ba yéen ñoom ñëpp. Ah, di la kontaanee. di wax ne émission bi am na solo. ñu ngi lu dégg yéen mbokk yi. xam naa mooy suñu kàddu mujj ci palaato bi mhm. ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen kontaane di nuyu mboolem xaj xadra al al Mbàkke ci Touba di ko nuyoo waa Tiwaawan nuyoo ko waa Medina Baye nuyoo ko mboolem turuk ah, suufi yee ci Sénégal di la ñaanal di ñaan télévision bi yal na yàlla gën a yàq yokku ko gën a yaatal seen ay branche gën a yokk seen doole ñu ngi leen kontaane bu baax di kontaan ci mbokk yooyu yëpp nag di kontaan bu baax lool jazakumullah xayran jërë ngeen jëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko imaam Cheikh Baye xam naa ne tax ñu tànn ko ba def ko imaam mate na ko ndax ci wàllu xam-xamam ak wàllu tegginam ak wàllu fasaaxam ñu jaajëfal bu baax itam Serigne Barham Seck moom mi nga xam ne moo yoroon relation bi doxoon suñu diggante di yëngatu ci wàllu communication foofa eh, sëriñ Ousmane Niane moom itam di jëwriñi Cheikh Mahi yi ca dakaar moom itam de suñu xarit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax eh, sëñ eh, Moustapha Diop bu mënee dugg si rek kon imam eh, sëñ Saalihu yaakaar naa ne dégg nga fi mu daaneele mhm. waaw man de xam mhm. wax rek lay dellu mhm. mooy day am benn xeetu discours boo xam ne boo xësee ba tenir mënatoo jiite lu jëm ca ñooña lu waaw maanaam xaw ma nu nu ko état réew mi war a lijjantee waaye discours bu mel nii ku ko tenir mm-hmm. xaw ma lu ciy topp xam naa lenn moom doon naa ko ñaan. nga mettre ma en cours avant may ñëw ci plateau bi. ci discours yëpp ndax man ñaare li ma li ma li ma dal. bari ko lool nag. man li ma dal mooy dama dul suivre yi lu bari. Ah, lii waaw dongab daara moom <laughs> damay sànku daara ko ba bokkuma ci programme dëkk bi mais lii moom xëy na même risaala bi sax jot naa ko gis. Mhm. mais moom it ba tey dama cee concentré wu wut. Mhm. ba man cee wax lu xóot. Mhm. waaye jëmmi risaala beeg coow li moom. jot naa koo gis. Mm-hmm. am na benn mbokk bu ma yónnee risaala bi ma liir ko. Mm-hmm. di ma ko liiree it teewluwuma ko xam nga dongab daara dana dégg tuuti mm-hmm. français waaye du ko peeg à cent pour cent donte xëy na yàlla dimbali na ma ci bu ma liiree danaa xam. danaa nga waaye bi ma liiree it taxul dëgg-dëgg li ko wër lépp. ma man cee wax waaye ci discours bii ma déglu fii. boo ci sukkandikoo kooku mënatut a dox diggante torixa yi ak état bi. dëgg loolu moom bu fekkente ni ndax lii ku ko wax ku nekk. des ko war a leer waa des ko war a leeral ba mu leer moom loolu daa waroon a leer ba pare. Mhm. loolu état Sénégal. Mhm. di fi fekk mu yëkkati kàddu yu mel nii ñu ne dañuy blanchir d'argent mhm. te ñu leer ne buñ ko xamoon ci nit dañuy dem jàpp ko. kon normalement ku yëkkati lu mel noonu am nga benn dénonciation boo def dénonciation boobu nag daa waroon a ubbi benn procédure ñu topp ko ba mu sës. ndax bu boobaa li muy dimbali mooy day cohésion sociale bi ci réew mi. dana gën a mën a taxaw. ndax lii benn xeetu tàqale la mm-hmm. ndax dégg nga sëriñ bi ni mu ci waxee mm-hmm. euh, xëy na moom mel na ni moom a gën a xam waa ji sax ndax ni mu waxee waaw mu ngoog ni mu ci waxee waaye daal li ma ci man li ma ci jeexale ci loolu mooy étape ñi nekk ci nguur gi mm-hmm. jamono bii nu toll nit ñu am yéene lañ ci ni ma leen di gise waaw nit ñu jullite lañ maa ragal ne njiit nag dañoo wax ne bu barke yokkoo xel gàtt kon xëy na xeeti émission yi dana baax ci ñoom. dëgg la buñ ko siiwree ñu xoolaat bu baax. néewuñ ne nees ko dàq. Mhm. waaye nañ ko tegg ci rôle mu def intermédiaire. Eh, diggante ñoom ak ñoom ñoom sax daam ñett yu ñu wax. jub jubal jubanti ak jubanti waaw kay. ki mat a jubanti daa mat a jubanti. mu ngoog waaw léegi bu ko defee. Mhm. ñoom bu ñu ko tegee ci leneen léegi li ci des nag. waaw ah, keneen doxal ko. ndax fi ne même mën naa dem bay jublu ñu rafet sax. Mhm. teewut nag doo mën a sax lu rafet la xel daal ndax ñëpp dox nga kii bi ah, salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw sëñ Fallou Cheikh Moustapha waaw man la léegi bo euh, xam nga xam bi mm-hmm. moom mi ko tontu mm. soo xoolee nit ñi bàyyiwuñ ci xel ah. mais moom est-ce na habilité tontu lettre boobu parce que moom moyens généraux yi nekk te d'habitude moyens généraux yi moom dafay tas lettres yi ñëw présidence day ventiler ay lettres kon donc loolu su demee ba am fit di tontu lettre bu mel noonu nga xam secrétariat euh, présidence ñoo ko war a tontu kon loolu jafe-jafe bu mag la ci wàllu fonctionnement mm-hmm. loolu déjà benn ngi noonu mm-hmm. ñaareel bi ci des moom miy wax ni borom diplôme la am na juróomi doctorat mais lettre yi put yi ci nekk loolu réew mu toll ni Sénégal ak ak ak ak fi ñu toll loolu nit war ko mën a bind ci tubaab di def faute yu mel noonu. loolu ah, waaw ay faute kese la. <laughs> ay faute kese la. donc loolu moo lay wan ni ne moom niveau bi muy waxee ak usurpation bi muy def beneen bi ci def mooy li mu wax naan euh, euh, dañuy blanchir argent. loolu ku si ku am xam-xam da xam ni banque yi dix millions ket boo ko ci dugalee ñu woo la nga justifié. kon loo mën a transféré ay deux milliards surtout réew tubaab bi réew tubaab bi man France laa jànge sa compte boo ci dugalee yenn somme ba banque bi dañ lay woo ne la justifié xaalis mu jógee boo amul kii ñu tëj compte bi kon donc loolu muy wax loolu waxu waxu yàq la. ak waxu bañ tarixa surtout nag yoonu murit yoonu murit moom la ci gën a gën a bañ dëgg la te loolu nag murit yi seen bopp ñoo war a vigilant mhm. euh, ñi fi nekk xam ki ki nga xam ni mooy Cheikh Omar Diagne euh, euh, dama gis décret décret de nomination ñu bindal ko docteur mais kooku dañ ko war a woo ne ko yow foo amee sa doctorat <laughs> loolu Euh, parce que Sénégal ku jóg rek ñu wooye ne nangam sàngam a nangam te amoo diplôme bi kon donc moom euh, li li mu def ci lettre bi bu amoon lu ko ëpp dana ko xañ waa Touba dana ko xañ yoonu murit kon donc euh, ñi fi nekk ñoo war a vigilant mm-hmm. surtout nag murit yi loolu sax murit yi moom xam nañ ko parce que murit yi moom ak bañam sëñ Touba ak bañam yoonu murit ak bañ lu tax ci murit loolu moom wër na murit bu nekk kon euh, lettre bi ci moom waru ko woon tontu man sama gis-gisu bopp parce que am na service présidentiel yu président yu habilité pour tontu lettre boobu ñaareel bi ci def ci koo xamante ne yow nee nga ni njàng bu kawe nga am ba boo wax ak nit ñi da ngay yaakaar nit ñi ñoom jànguñu ngay def fukki yu toll noonu xamoo sax ni kan mooy président comité màggal ba def ampli ampliation euh, président euh, premier ministre ak président de la République def ko Cheikhouna Mbacké loolu moo lay wan ni euh, la boobu noonu bu nekkoon ci beneen dëkk ay enquete la ñu ubbi laaj ko moom ban sañ-sañ la am bay tontu lettre bu toll noonu te lettre bi moom adressé wuñ ko ko. dëgg la dëgg la. waaw kay. dëgg de. waaw euh, kon mbir mi dañ ko waroon topp. ndax bu amee beneen occasion. pour xañ ñëw na murit da koy def. dëgg la loolu de na moom. loolu lii kenn waru koo bàyyi nii rek ñu coow ko ñaari jour déedéet. état bi war na jël ay mesures ci biir yoonu murit war nañu vigilant parce que am moom ci mën na am ci ci pouvoir bii nii régime bii nii muy profité pour def agendaam te agendaam moom bépp occasion bu pour xeex murit xeex yoonu murit da koy def ndax wane na ak mbañeelam wane na ñàkk safoo yoonu murit donc loolu moom avertissement la pour képp kuy murit investissement itam ci région bi nga xamante ne ñëw la buñ bëggee liggéey liggéey boo xamante ne yaakaar boobu réew mi am ci ñoom ku mel ni ay ñoom Cheikh Omar Diagne dëgg la man loolu loolu laa kon sëñ Galas man sama kàddu mujj mooy loolu maa ngi sant ñu ma bokk nañ plateau bi dina bu wér mhm. di xam ne liggéey bi ngay def nii mhm. liggéey bu rëy la jërëjëf euh, plateau yu mel nii mhm. dafa war di bari ndax réew mi kenn mënu cee génn tarixa déedéet déedéet. mu tarixa mu mu moo samp réew mi. Mhm. histoire tarixa moo samp dëkk bi. kon donc boo xëyee da ngay tarixa da solo sa bopp rek mhm. doo ci am ndam. déedéet te di ci naqar lay dëkk. wallaahi wallaahi wallaahi Diop. jërëjëf jërëjëf Cheikh Moustapha Diop eh, ca Dakar moom itam dégg ngeen ko kàddu yi mu andi kon sëñ Saliou yaakaar naa ne li nga doon junj léegi nii muy xam ne waxtaan wi jàtt nañu lool bàgg ci lool ñu jaajëfal site internet yi nga xam ne ñu ngi koy def direct yëpp eh, <clears throat> li nga junj léegi nii ci état bi eh, président de la république def na ñaari accès yoo xam ne mi ngi tàllal loxo këri diine yi mooy njëmbatu garab bi mu defee bi mu doonee président de la république njëmbatu garab bi mu tànn ne nañ ko defee ñu Touba ak bi mu dikkee kaddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko digganteem ak sëñ Muntaxa waaye diggante boobu matut semaine màggalu Touba di di dëgmal mm-hmm. mu dëppaat ñëw màggal sil boppam mënoon naa yebal ministre premier ministre mën naa yebal ministre de l'intérieur mën naa yebal ministre bu neex waaye teewul dafa màggal si waat mm-hmm. loolu teg telewaat sëriñ Mountakha it wax ci làmmiñu boppam rafet njort gum rafet njort ci ñoom ak moom yéene jum am ci Touba mu teg premier ministre premier ministre moom ku ne xam ne diggam ak waa Touba ku ne xam diggam ak sëriñ Saliou xam diggam ak sëriñ Fallou mu sëriñ Soy xam diggam ak sëriñ Amsatu mu sëriñ Abdou Lahad xam diggam ak sëriñ Modou mu sëriñ euh, Cheikh Khady xam diggam ak kilifa yu bari waaw li li li li imaam Cheikh Baye wax wala sëñ Moussa Diop wax ko wala sëñ sëñ bi sax ko wax sëñ Seydina mu doon koo xam ne da ngay déglu ci biir ay waxam muy gëb muy wax ay aaya alxuraan yoo xam ne daa teg da ko xam mm-hmm. ci biir ay ay euh, mu def référence sahabatu rasul yi di delluwaat ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku dañuy gëm ne kii ku gëm diine la ku gëm tarixa la léegi ñoom ñaar ñooñu nun leen Cheikh Omar Diagne mën a naxe bañ na ko daal yow lañ tànn doxalee la suñ diggante ak tarixa yi bu ñu ko fi doxalee ñoom seen diggante ak tarixa yi lañ ci bëggoon duñ ko am ndax ñii benn tarixa dutu ko bind jox ko leetar de bu dee leetar yi ci moom la jëm yaakaar naa ne ku la won ak mbañeel daal mel ne kii mujj wax nag li mu wax daa mel ne moom amul habilité wu pour man a pour répondre kon lu tax muy tontu. kon kon moo tax ma ne mbir mi xëy na des na ci xóotalaat ndax moom li mu waxee. Mhm. nee na bu fekkente ne moom moo moom moo tontu dysfonctionnement lay nuróol. Mhm. parce que moom habilité pour war a répondre kon moo tax mbir mi. kilifa yi defe naa duñ seetaan loolu. bu tontoo it xamut de. ndax ki mu ne mooy président comité d' moom. Hmm. président comité d' moom Cheikh Bass la. Hmm. te waxal na boppam moom mës bind leetar. seexu naa it ba mu jógee wax leen ne man maa ko bind. Hmm. waaye ci turu relation extérieure laa ko daan bindee. kon moom xam na lim doon. bi muy bind ci ci relation extérieure ci la wow la bindee. ki tontu moo tontu euh, mi ngi mel ne. premier ministre bind la nga tontu président de la république. Ah, wala président la république tontu bind la nga tontu moom kooku moom am na jaaxle. maanaam Moodu bind la nga tontu Moussa. mu ngoog. kooku yaakaar naa war nañoo seetaan nii <laughs> ñu tàggatoo ak jotaay bi. waaw kon li may tuuti rek mooy attaansub fii. sëriñ bi dafa indi lu am solo. jàpp ne maanaam kenn ku ne fa kullu wérdin yóoridul murida li xadratillahi walan yaxiida sawa untama ila aljilaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaab fa kulluhum yadu umuri diine ila taxat rabbi xaysuma bi day wane ne taxasub taxasub mooy parparloo ak taxasub ak taif yi kon buñ ne ay suuf yi lañ ñu ñëpp benn lañ war a ba déggee mu ne wet wu nit jël bu la mën a àggalee ci yàlla rek baax na. Mm-hmm. wala neex yi dara moo ci kii bi. Mm-hmm. ndax kenn ku nekk la ngay xëcc ak la ngay kurus. Mm-hmm. waaye mboolem ku càpp ci wird moo xam wird wa atijaani la wala jaylaani wala xaadiri wala lu mën a doon rek. ndax mboolem sëriñ si li ñu woon nit ñi mooy ci yàlla rek. mooy li mu waxoon ci masal ginaan ne nit taalibe bi jóge fii dem fee bu fekkee yàlla rek moo la tax a jóg. jug gi mu jug fii dem fee wut am problème ci yow. ne mhm. da xam ne defar dong moo la tax jug. kon mooy li ma waxoon léegi ci ginnaaw rek ab suuf yi daal daa war a mel ne suuf rek. Mhm. suuf moom ku bon ak ku baax ak ñëpp a koy dëkk. Mhm. mbale mbale la ñuy jël di xëpp ci kaw muy muñ rek. ngir la mu wooteel mooy ab xol bu set bu set la. kon ñoo ngi jégalu ci kàddu yi. ñaan suñu borom dool la ñu tawféex may ñu ak imaan may ñu ak tawxiid goo xam ne dañ koy wéetal moom yàlla comme ni ko sëriñ waxee ca bañ ko bokkaale dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mm, sëñ Sans <laughs> waaw sëñ Fallou xanaa di bég rek ak di rafetlu kàdd yi fi jaar yëpp ci mbokk yi eh, di wax ne bii émission moom lu war di bari la mm-hmm. di la ñaanal yow it sunu borom dëgëral la ndax eh, bari say kem mm-hmm. ndax waxtu wu ne dama lay suivre. dëgg la dëgg la xam nga man sax li ma dugal ci lii ma liir lettre bi ci yow la démb laa lay wax naan la <laughs> déglu naa sa laaj bi. dëgg la waaw. <laughs> laaj boobu sax bi ma ko dégloo. Mm. ci laa ci laaj ko sama mbokk moo xam moom day faral di connecté wu lu bari. Mm. ci ma ko laajee ci la man ci la ma envoyé lettre bi. Mm-hmm. lettre bi dama ko liir ci kaw rek. dëgg dëgg mbir ma xamaguma ko woon. moo tax xuusuma ci. Mm-hmm. waaye da dama lay topp. te mm-hmm. ñaari yi ngay indi dama koy gëstuwaat. ndeysaan ndeysaan waaw gis nga def benn extrait bu gàtt rek ma xam ne am na lu xew. dëgg la waaye bi nga posé question bi moo tax bi nga ma wooyee loolu la njëkk wax ne la <laughs> sa laaj bi de déglu naa ko. dëgg la ndax waxtu wu ne maa ngi lay topp ci yëpp. tur yi bi loolu lépp nag ak la na la. ñu nit loolu moo nu Mmh. Mmh. Eh, ndax dañuy wax ne am na ñooñ bu ñu la woowee rek layoon a ak yow dëgg la te damay gisit kilifay dëkk bi ñu bari damay toog ak ñoom mmh. waaye dañuy rafet lu baax say taxawaay yàlla na yàlla defal la tawféex amiin amiin defal ko mbokk yëpp sang bi macha allah xam-xamee na ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ Saliou Ball nekk ci daare alquran di jàngale alquran ak xam-xam waaye di yare ci di Eh, ubbi daara ci mbusoobe mm-hmm. jaar ci loxoy Serigne Saliou jërëjëf itam seydi naa Diop waxoon naa ko alkookiyu bokk ci famille bu mag boo xam ne diine ak ngor ak xam-xam rek lañ leen xamee ku leen génne seen cosaan ci réew mi daanaka réew mi jeex mm-hmm. eh, di jaajëfal imam Cheikh Baye ku ne xam ne ne mat na représentant Cheikh Abdoulaye Niass mat na représentant itam Cheikh Mahi eh, xam-xame na ma itam yaroo na waaye nag diine la waaye nag ba noppi nag tarixaana tarixaana ñu jaajëfal itam sëriñ Moustapha Diop borom xam-xam la jànge Paris ginnaaw bu mu jàngee fii ba noppi gën dem Paris del si waat di xam-xam bu mag kilifa yu baree bari itam naw ko ci wàllu xam-xamam mm. eh, macha allah ak fasaha ak Euh, jàngat bi nga xam ne def na ko ci ci ci wax nii ñu ngi jaajëfal ko bu baax sant ko gërëm di euh, dalal dalal dogal ngant sëriñ naa bu sa cumbuleen moom itam amoon na yéene teewe jataay bi moo ko waroon a modéré sax mm-hmm. euh, man plateau bi dañ maa def nii rek waaye waruma ci woon bokk mm-hmm. moo ko waroon a modéré mm-hmm. di wax rek ne ñi ngi waat tàllalaat loxo njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay premier ministre Ousmane Sonko ñu xam ne daal seen diggante digganteeg tarixa yi njortu lu rafet dox ak yaakaar ju rëy waaye nag gis nañ benn soble bu nëpp boo xam ne buñ ko bàyyee ci sa saako bi mën naa yàqaale soble yu bëree bëri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam. macha allah. macha allah. Serigne Touba Cheikh Serigne Touba Cheikh وثوابا وجزاء